émission bi seen seetu la leen du soxal lañ fi waxtaanee pendant toute cette semaine on va parler de fiscalité au Sénégal ndax sujet bi mi ngi ci euh, au bout de tous les lèvres comme ni ñuy waxee presse bi yëpp moom la ñuy waxtaanee d'ailleurs démb gis ngeen que direction générale des impôts et domaines ñi ngi annoncé euh, effectivité wu TVA numérique à partir du 1er juillet donc fiscalité daal. moom la ñuy waxtaanee ci presse bi ci kër yi c'est dans l'actualité mais fii nii si plateau bi tey lu ñu nar a waxtaanee mooy formalisation fiscale déjà expliquer lan mooy formalisation fiscale ñan la concerné wax ci impo ak euh, système euh, informel formalisation fiscale surtout. bu petit et moyens entreprises yi wax ci impôt avec les grandes entreprises aussi ak euh, lan mooy notion d'élargissement fiscal et surtout lan la ñu nar a apporter fii nii ci suñu koom-koomu dëkk donc ci plateau bi je pas toute seule parce que comme impôt la ñuy waxtaanee la direction générale des impôts et domaines seront présents sur le plateau euh, bien sûr pendant toute la semaine du lundi au jeudi pour gën a leeral euh, Sénégal yi lan mooy fiscalité ak lan moo tax ñu war ko respecter euh, tey nag ki ñu envoyé mi ngi tudd monsieur Omar Lo nekk contrôleur des impôts à la direction des grandes entreprises monsieur Omar Lo bonjour bienvenue sur le plateau et merci ci na nga ñu accepter les sunu invitation di am mbégte di fi teewal direction générale des impôts et des domaines. Mhm. ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu secteur informel. Mhm. ak lépp luy dimbali entrepreneur individuel yi. parce mm-hmm. que ñu mën a formaliser wu ak lépp li nga xamante ne si ne ay avantage la lu jëm ci wàllu woowu donc dinañ ci ñëw notion de formalisation ak euh, entreprise yi yu ndaw yi yu mag yi ak surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk dans le secteur informel ndax impôt am na ñu ci bëri dañu jàpp ni waru leen alors que képp ku nga xamante ne euh, yaa ngi ci dëkk bi démb Kumba définir na euh, ñan ak ñan ñoo war a fay impo ñen euh, ñoo imposable ak euh, impôt daal lan la démb commencé nañ mais tey daal formalisation bi ci la ñuy gën a ñëw gën ko waxtaanee ak suñu ay invité am na beneen invité bu nga xamante ne mi ngi fi moom tamit di préparé wu pour yéeg si plateau bi man nax ko ak accueillir muy euh, monsieur Souleymane Diallo nekk secretaire général adjoint bu CNTS nekk aussi ancien secretaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal SELS nekk aussi euh, président d'honneur SELS monsieur Diallo mun nga egsi plateau bi comme ça ñu gën a mun a waxtaanee impôt et surtout par rapport aux entreprises mettez-vous là. surtout entreprise yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk di fay impôt euh, chaque mois ñu bëri di ko kaas nag jàpp ne impôt bi dafa bëri jàpp ne impôt bi dañ koy fay rek mais après du ñu gis fan la dugg xam naa loolu yëpp dinañ ci ñëwaat mais ñu ngi lay dalal bu baax ci plateau bi di la remercier ci ni nga nangoo euh, sunu invitation. ok merci di leen gërëm di leen sant bu baax euh, vraiment donc si invitation bi c'est également surtout si thème bi nga xam ne aussi si si la ñu waxtaanee tey te bu solo bu am solo. si contexte boo xam ne également sénégalais yi ñoo ngi rencontré ay jafe-jafe. Mhm. te également gouvernement bi aussi également jël ay mesures vraiment pour mën a wàññi dund bi pour vraiment mën a améliorer euh, situation ménage yi fii si Sénégal. Mhm. wàññi dund bi wàññi impôt xam naa ñu bëri foofu lañ ko bëgg a jaarale ndax nee nañu impôt bi wàññi ko ci lépp li nga xamante ne moom mooy dugg si fi Sénégal comme ñun lu bëri dañ koy jëlee bitim réew di ñëw impôt dina wàññeeku euh, mais bëggoon naa xam monsieur Lo kan moo war a bu nu sukkandikoo ci code général des impôts képp koo xamante ni si nii yaa ngi yëngatu ci wàllu jënd ak jaay maanaam nga exercer une activité économique. Mhm. wala sax nga exercer une activité professionnelle boo xamante ni si nii bu jëm ci wàllu prestation de services yi nga am loo cay euh, loo cay jëlee rek kooku war naa fay impôt képp koo xam ni tamit yaa ngi liggéey ñu lay fay weer wu dee dañ lay fay am na loo ci loo ci warloog euh, état lu jëm ci wàllu. wàllu wàllu alors euh, secteur informel bi euh, gis nañu suñu yu bëri ñi nga xamante ne impôt bokkul sax ci li nga xam ne dañ koy xalaat mais ñoom est-ce que war nañ fay impôt. waaw secteur informel bi war nañoo fay impôt parce que principe yi nga xamante ni si nii ay principe directeur la yoo xamante ni si nii moom mooy euh, moom mooy régir wàllu impôt dafa am principe bu ñu ciy wax légalité des citoyens devant l'impôt maanaam citoyens yëpp ñoo yem ci kanamu. ci kanamu ci kanamu l'impôt donc nga nekk dans le secteur informel wala boog nga nekk li ñu woowee dans le secteur formel ak bu mu ci mënti doon rek da ngay nekk koo xamante ne si nii war ngaa fay war ngaa fay impôt. Mhm. donc système informel bi ñu ko war a fay impôt rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci entreprise yi euh, noonu leen gisee impôt bi actuellement Sénégal. bon euh, liggéeykat yi euh, déjà dañoo accepté ne dañoo nambu nekk dañoo war a fay impo comme ni ñu ko waxee. parce que bépp citoyen bu nekk si réew yàlla may la ngay yëngatu. Mhm. Euh, du njëriñ sa bopp war ngaa mën a njëriñ askan bi tamit. Mhm. donc euh, impôt dafa bokk si li nga xam ne aussi moom mooy tax Sénégal moom mooy tax état bi di mën a am ay ressources pour mën a investir pour développement réew bi donc euh, bépp citoyen dafa war a fay impôt moo tax ñun en tant que travailleur dañoo accepté que ñun dañoo war a fay impôt. Mhm. mais nag ni ñu ko gisee nag. impôt bi mooy que ne. Euh, euh, dafa am dafa mel ni que ñun ñun ñun ñooy fay impôt. travailleurs yi. travailleurs yi vraiment c' est est une minorité en tout par rapport l' impôt sur le revenu waxuma la impôt yi nga xam ne c' est euh, bénéfice société yi nga xam ne moom la ñu war a fay mais en tant que travailleur yi nga xam ne mooy population active bi. Mm. dañoo seetlu ne pratiquement ñi nekk info secteur formel mooy entreprise yi wala daal le secteur public travailleur liggéeykat yooyu. ñoo ñooy fay impôt. moo tax impôt bi diis suñu kaw. waaw donc ñi war a fay yëpp fayuñu. c'est une minorité mooy fay ñu jël lu bëri si impôt bi yëpp teg ko si minorité boobu te minorité boobu moom moo war a fay pour maintenant ñu investir pour mën a pour déw pour réew mi mën a développer wu pour askan bi yëpp man si profito xam nga loolu tamit ba quelque part injustice la te ñun loolu mooy suñu problème. mais accepté nañu ñun que dañu war a fay impôt mais du ñun nag ñoo war a fay impôt comme ni ko euh, sama euh, collègue bi waxee mooy que ne ñëpp a war a fay impôt yaakaar naa bu ñëpp fay impôt rek euh, donc dina dina dina dina kii bi donc impôt bi voilà dina wàññeeku mm-hmm. ba nga xam ne vraiment donc nañ ko mën a supporter ba pare également mu may euh, état bi aussi suffisamment donc de ressources. alors monsieur Lo est-ce que ça c'est une réalité que impôt ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ñu koy dagg à la source euh, balaa sa salaire di ñëw impôt bi dugg euh, ba egg ci gouvernement bi est-ce que ñooñu kese ñooy faral di fay impôt wala ñeneen ñi tam ñu ngi ciy góorgóorlu. waaw ñeneen ñi ñu ngi góor góorgóorlu waaye loolu it constat bu ñu mën a firndeel la. Mm-hmm. parce que tey. ni système ni suñu économie tëddee la. parce que xam nga tey salarié bi moom mënul rëcc. parce que dañ naan employé bi kii li nga koy fay weer dee yow yaa warloo ñun nga dagg impôt daal ñu koy daal ñu koy reverse. Mhm. donc kooku noonu pour ñu mën a jot impôt ci moom dana yomb waaye dañoo am économie boo xamante ne si nii dañ ni téeméer boo jël juróom-ñeenti fukk yi ak juróom-ñaar yëpp ay unité ay unité informelle lañ. 3 pour cent yi rek ñoo ci nekk ñoo xamante ne si ni ñu ngi nekk dans le secteur formel. Mhm. et ci 3 pour cent yooyu ci la ñuy ëpp ci ñoo xamante ni si ñoom la ñuy sukkandiku pour mën a am lépp loo xam ne dañ koo soxla ci wàllu ci wàllu recette fiscale. Mm-hmm. et que donc ñooñu dañuy nekk ñoo xamante ni si ñooy gën a recentir la pression fiscale ndax natt boo xamante ni si nii euh, juróomi loxo la bokk la natt boo xamante ni si nii fukki loxo la. parce que bu mm-hmm. nekkee fukki loxo peut ku nekk la ngay natt dana koy gën a dana dana gën a oyof ci yow. Mm-hmm. waaye terewul itam ñi def ay jéego yu am solo ci wàllu woowu noonu fexe ba impôt nekk loo xamante ni si ña ko war a fay ñëpp danañ ko fay donte nii nag secteur informel nag na secteur boo xamante ne si nii bëri ay jafe-jafe yoo xamante ne si nii ngi ci pour war leen mën a appréhender surtout par rapport ak yenn circuit économique yi nga xamante ne si nii seen i mbir dafay euh, dafay jaar ak yu yu demee noonu. waaye tàmbali woon nañ ak plan yaatal yi nga xamante ne si nii c'est dans le cadre d'une stratégie nag mu ñu tuddee ko stratégie de mobilisation de recettes à moins terme. ki devrait nous permettre at mu jot ñu yokk loo xamante ne si dina mat vingt cinq mille. contribuable ci suñu fichier dem ba yegg cinq cent mille tey ñi ngi jublu ci wàllu président mu ñëw gën a dooleel lool ci yaatal suñuy service ndax tamit li nga xamante ni si nii mooy tax nit ñi nekk ci informel bi parfois mën na nekk wàllu mu jëm ci bureaucratie parce que ku nekk fi mu laa war a ñëw ba Fatick pour jënd timbre fiscal wala pour une déclaration fiscale yombalal voilà yu mel noonu donc tey jii nii ñu ngi dans une politique d' extension de nos services dem ba ci wàllu département yi commencé nañ ko fi mu ne nii xam naa fii ak euh, ab diir bu néew centre yooyu noonu nañ mën a effectif muy centre Tivaouane di centre Kër Massar di centre Diamniadio fexee dem ci département yi waaye itam service yi nga xamante ni si nii jarul nit ki di am une présence physique dans nos ñu faxe ba moom à distance dina mën a bénéficier ci service yooyu noonu. ñu tuddee ko. Euh, digitalisation. Mhm. wala boog dématérialisation. mais mais digitalisation est-ce que dina possible ci am na zone yi nga xamante ne tey yaa ngi koy lim que euh, ñu dem ba egg fa pour nit ki mun a euh, def loo li nga xamante ne moom la warloo par rapport ak état bi di fay impôt am na zone yi nga xamante ne tey peut-être courant sax dañ koy dañ koy négocier euh, zone boobu tey bu fekkente ne danga leen bëgg a xoox digitalisation est-ce que du nekk beneen problème bu ñu leen di andil. Hmm. waaw waaw loolu problème. waaye comme ni ma ko waxee ci sama début wax du ñu yem rek ci digitalisation waaye tamit dinañ fexe tëral benn politique de proximité boo xamante ni si nii dina tax administration gën a jege usager bi. nga xamante ni si nii peut-être coût yam doon supporter pour war a mën a bénéficier wu d'un service dana mën a wàññeeku bu baax. ndax administration fépp foo xamante ni si nii mën na faa nekk jege askan wi rek nañ fexe suñu kéemtalaay kàttan ba teew fa ba nga xam ne usager bi nga xamante ni si nii wu sax des services.

oui euh, loolu war a nekk la te dëgg nag yomb waaw wax na ko état bi am na benn politique euh, donc de formalisation au niveau international aussi au niveau de l'OIT aussi am na ay euh, mesures yu ñu jël am na ay convention vraiment pour ñu fexe pour ñu formaliser secteur informel mhm. bon ñu en tant que syndicat également en tant que central aussi ñoo ngi siy liggéey au mhm. la CNTS am nañu ay projet am nañu ay partenaires yoo xam ne ñoo ngi liggéey ak ñoom am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi nekk ci secteur informel euh, surtout ci jigéen ñi également ñoo leen di jàppale euh, fexe ba ñu am ay coopératives euh, fexe également pour ñu mën a bénéficier aussi donc ci protection sociale béné man a bénéficier également ci ay feru ay ay ay ay financement mm-hmm. par rapport à leur activité mm-hmm. mais également par rapport ak renouveau revenu yi nga xam ne aussi dañ koy am aussi ñu mën a fay mën a fay seen mën a fay seen donc seen impôt ñoo ngi fexe pour euh, ñu formaliser leen mm-hmm. mais responsabilité état la nag mm-hmm. waaw mais ñun tamit en tant que central dañ siy contribuer mais du lu yomb mais au-delà de l'économie informelle te loolu mooy solution bi nag solution mm-hmm. définitive bi mooy que ne na ñëpp fay impôt et surtout comme moom ni comme ni mu ko waxee économie informelle bi bés bu ñu demee bay fay impôt rek yaakaar naa ñëpp nañ ko sentir Sénégal loolu moo mën a mais nit ñi sentiroo leen que ni euh, am na benn retour par rapport ak impôt bi nga xamante ne moom lañ moom la ñuy dagg directement à la source. est-ce que yéen nga yéen a ngi sentir ne yéen li ngeen di fay. yéen a ngi ci gis seen bopp non non xam nga même bu fekkee ñun ñoo ngi siy gis suñu bopp. mais euh, li muy wàññi si ñun dafa bëri. parce que actuellement dund bi dafa metti dund bi dafa metti su fekkee également donc ñëpp war a fay te ñëpp fay ñu ñun rek ñooy fay donc dafay diis si suñuy salaire. Mm-hmm. donc taux bi nga xam ne moom la ñuy prélever suñu salaire dafay diis. Mm-hmm. ça c'est un. deuxièmement également beneen bi mooy que ne su fekkee am na ñoo xam ne ñoom war nañu fay te ñu te li ñuy jël si ñun moom la ñuy jël également après investir ko. ñëpp bokk ko ñëpp bokk ko <laughs> donc également dafay metti mais au-delà de de cela. mais mm-hmm. ama may euh, yëggali foofu. mooy que ne impôt bi wax nañ ko mais am na foo xam ne aussi état yi war na ma def ay efforts. Mm-hmm. waxuma la sax secteur informel bi c'est ça la solution globale et définitive mais am na tey tey fii au Sénégal aussi euh, li ñuy wax également loo xam ne genre exonération fiscale la am na ñoo xam ne ñoo ngi fii di liggéey Sénégal di gagné xaalis bi dul jeex ba pare bi leen fayee ko impôt ñu fay impôt wala ñuy nëbb seeni impôt wala ñuy évasion évasion fiscale am na mais beneen bi mooy am na loo xam ne exonération la état bi si boppam ça moom moo jël décision exonérer certaines entreprises. mais ñooñu la entreprises étrangères yi wala xam ne ay entreprises xam ne dañoo nekk souvent dans la zone économique spéciale. dañu leen di jël pour favoriser investissement yi mën nañu defar ay exonération parce que dañuy recruter également dafa leen ay faveur pendant un an pendant deux ans pendant trois ans boo xam ne également donc ñoom dañuy recruter mais duñu fay li ñu war a fay en terme d'impôt là également pour ñun loolu tamit vraiment euh, du dëgg du yoon Euh, euh, li nga xam ne moom moom lañu jël comme prétexte mooy création d' emploi xam nga su doon création d' emploi décent sax xam ne emploi yu ñu ay emploi yoo xam ne c' est des emplois décents ay emploi yoo xam ne vraiment donc dañoo sell am lépp loo xam ne am euh, travailleurs dañuy am seen CD seen CDI am seen protection sociale am seen lépp également ba pare aussi am liggéey boo xam ne également dafa respecter les les les droits fondamentaux au travail su kon loolu saa ñu mën nañ ko accepter mais dañoo constater que am na ñu bëri ñoo xam ne non seulement dañ leen defar ay exonération du ñu fay mais dañu jël ay liggéeykat mais emploi précaire la ñuy créer donc liggéeykat yooyu dañuy gën a sonn donc euh, lu mel noonu également yaakaar naa euh, war nañ ko xoolaat donc na ñëpp fay impôt état bi su fekkee dafa mën a jël ay mesures pour mën a inciter nit ñi pour ñëw di investir si suñu réew mais na jël seet yeneen mesures xam ne lu dul si exonération fiscale yi. Mhm. loolu moom vraiment donc loolu mooy suñu taxawaay. alors pour ñu vraiment donc impôt bi bëri mais damay rappeler aussi. Mhm. tey tey ñooy wax nañu wàññi impôt bi nañu wàññi impôt bi. rappeler aussi am na solo mooy baisse euh, donc euh, impôt yi ñu wàññi si salaire yi. Mhm. sous euh, donc Macky Sall c'était dans les années 2013 bu njëkk boobu également c'était loolu CNTS avec le camarade secrétaire général Mody Guiro. ne moom laa ko représenté moom moo négocié woon loolu. ba ñu wàññi impôt bi sur les salaires. Mhm. mais xam nga wàññi impôt sur les salaires rek mën nga jël décision bi léegi léegi mais impact bi muy am dans deux ans dans trois ans dans quatre ans après inflation bi. le coût de la vie ñëw. finalement effectivement donc li nga gagné yëpp da nga koy perdre mhm. moo tax pour ñun li gën a am solo mooy na ñëpp fay bu ñëpp fayee état bi na am suffisamment de ressources ba nga xam ne non seulement dina mën a réinvestir. Euh, dans le domaine de l'éducation secteur sociaux yi éducation parce que aussi am na ñu bëri gamat yi ñuy dépenser pour leurs enfants dans le secteur de l'éducation day wàññi le coût de la vie les dépenses mm-hmm. investir dans le secteur de l'électricité de l'eau mën a wàññi prix yi mais également beneen bi mooy que état bi euh, dina màññi wa na mën a wàññi taxe si beaucoup de produits mm-hmm. su fekkee am na suffisamment d'impôt ñëpp ñoo ngi fay impôt tax taxe yi muy def si yeneen produits yi Euh, c'est ou bien euh, pétrolier ou bien certains certains produits certains denrées de première dina mën a wàññi taxes yi ba nga xam ne finalement euh, dund bi dafay gën a yomb. Mhm. mais parce que aussi tant que loolu aussi amul comme que li si bëri dañ koy jëndee bitim réew. Mhm. tant que taxes yooyu également wàññi wuñ ko. même tey tey bu jëlee ay mesures actuellement def nañu ko dañ koy rafetlu après après mën na am nañ si ñëwaat. Mhm. wàññi dund bi jël ay mesures. mais comme que ñun li ñuy consommer ce qui bitim réew lay jógee. su prix yokkee au niveau du marché mondial automatiquement également commerçants yi seront obligés soit ñoom ñu yokk parce que mënuñu vendre à perte ou bien état bi yokk subvention yi finalement également donc dañuy gën am ay jafe-jafe d'accord alors euh, wàññi impôt yaakaar naa ne sénégalais yu ci bëri moom la ñu bëgg mais wàññi impo boobu am na aussi euh, yeneen yoon yi nga xam ne wax na fa jaar bu dul exonération fiscale euh, muy formalisation fiscale lan mooy formalisation fiscale formalisation fiscale ci nañ ko mën déggee mooy ki nga xamante ni si nii mi ngi def une activité économique fan la war a jaar ba activité am boobu noonu ñu xam ko au niveau des administrations lu ci demee ni administration fiscale. Mm-hmm. activité économique mooy lépp la nga xamante ne yaa ngi koy def mu lay andil xaalis. mu lay indil xaalis ñu la ciy fay. waaw ak lu mu munti nekk. ak secteur bu mu munti nekk. maanaam yow am na looy jot ci sa gafa ga. di ko jot weer wu jot wala nga koy jot at mu jot. yaa xam mm-hmm. waaye am na loo xamante ni si nii. yaa ngi koy euh, yaa ngi koy gagné ci li ngay yaxantu wala ci li ngay jaay wala ci li ngay euh, def comme de service mm-hmm. léegi nag ñu ñun la boo koy def le premier niveau de formalisation bi nga xamante ni si nii war nga ci nekk mooy que war nga am NINEA am registre de commerce mm-hmm. képp koo xamante ni si nii yaa ngi yor entreprise individuelle wala boog nga exercer nag activité économique war nga am kayit yooyu noonu boo ko amee nag impôt ni la ci ñeen ci ñaar fukki fan yi teg loolu ndax boo demee ci code général des impôts dañ naan la dans les vingt jours suivant l'ouverture de l'établissement ou le commencement en tout cas de l'activité maanaam ñun loolu ñu ngi koy natt ci ba nga amee NINEA ci ñaar fukki fan yi nga xamante ne si nii moo teg ci loolu mm-hmm. am nga waruwaay dem ca impôt ni leen ah man ko tijji naa boutique wala boo commencé naa jaaye damaa bëggoon ñëw pour fay pour fay samay impôt mm-hmm. léegi nag ñaari situation ñoo am ndax nag nit ki mën na am NINEA am registre de commerce yëpp teg waaye activité am commencé bi mhm. ma ngi leen nga damay def déclaration d'existence mhm. et de non démarrage d'activité mhm. su boobaa ñu immatriculé la négandiku am diirub négandiku boo xamante ne si nii dañ lay may sa activité bu commencé nga ñëw ñu ubbil la compte yi nga war a déclarer impôt yi nga war a déclarer yëpp beneen bi nag moom fekkee da nga am say kii rek daal di démarrer loolu la ñuy tuddee déclaration d'existence et de démarrage d'activité maanaam dañ lay immatriculé rek nga commencé déclarer ka fay ca si donc formalisation mën nañ jàpp ni loolu lay wund buñ ko euh, en tout cas xoolee ci wàllu lu jëm ci impôt. Mhm. mais euh, tey par exemple man mi yor sama boutique di jaay di jaay bu ma jëndee jël lépp def sama poche. Mhm. Euh, ban intere laa am ci dem formaliser wu d'autant plus que xaalis bi loxoog loxo lay jaare yaa ngi comprendre. Mhm. amul benn trace bu nga xamante ne mun nañ ko gis ni tey du du carte bancaire bu ñu fayee du chèque bu ñu fayee du du virement du dara loxo laay jëlee xaalis bi def sama poche ban intérêt laa am tey si dem formaliser wu. am nga ci intérêt yu bëri xam nga ci intérêt yu bëri waaye bala maa si loolu dama bëggoon defaat rek benn typologie wu secteur informel secteur informel sax ñu bëri dañuy am problème pour définir ko lan mooy secteur informel. Mhm. bu ñu sukkandikoo ci ANSD ANSD dañu secteur informel ñi ko formé mooy entreprise individuelle yi nga xam yëpp ni soit dañoo amul comptabilité wala dañoo amul identifiant fiscal maanaam mooy mooy NINEA mm-hmm. waaye nag ci ñooñu am na ñoo xamante ne sii ni ñii ñàkk xam a tax mm-hmm. defuñu ko ñële peut-être xam nañ waaye comme li ngay wax peut-être dañ naan ah impôt kat pour jot ci moom du yomb wala boog en tout cas dañoo jël seen choix ni ñoom daal baal ñu jéem a daw épo parce que li ñu am peut-être bëriwul wala lu mel noonu waaye euh, impôt jarul ragal mm-hmm. ndax y a ce qu'on appelle le principe d'équité maanaam yemale ci ku nekk fa sa doole yam mm-hmm. ci lu toll noonu ngay fay yow su nekkee ni sa activité économique kat lam lay indi ci at peut-être euh, ci benn million la tool dañ lay fayeeku ci lu toll noonu am na foo xam ne sax boo ko dépassé wul koo xamante ne si amul ëpp 630 bi dinaan la ah yow kat jéggal nañ la boo amee itam. waaye lay jéggal ñëwal foofu loolu c'est important. <laughs> maanaam yaakaar naa ñu bëri ñuy seetaan bëgg nañ xam ban période lañ la naan yow exonéré lañ d'impôt ndax xam naa exonération d'impôt dinañ ci ñëwaat comme ni ko monsieur Diallo waxee lu ci bëri entreprise étrangère yi boo dee liggéeyee ñoom dañu lay wax carrément man du ma fay impôt mais pas ñi nga Sénégal mais boo tollee fan lañ la naan yow doo fay baal nañ la loolu ci ñëwaat wàllum exonération yi waaye fi mu naan la yow doo fay mhm. maanaam foo xam ne sa revenu yeggu yeggu yeggu fa bu yeggul 630 000 ci at mi mhm. doo fay d'accord waaye itam boo defee sa bilan xool say charge ak sa yëpp su nekkee impôt sur la boo defee perte itam foofu dañ naan la ah jéggal nañu doo fay. donc say revenu ci at bi bu matul 630 000 waroo fay impôt. waroo fay impôt soo pertee waroo fay impôt. nag mais soo soo amul dara la waa impôt di boo pertee su nekkee société nga boo xamante ne si nii impôt sur les sociétés nga nekk. Mhm. am na impôt bu ñu naan impôt sur le minimum forfaitaire. maanaam loo xamante ni mënoo koo ñàkk a bañ a fay bu njëkkaan daa amoon minimum de 500000 waaye minimum boobu dinañ ko léegi c'est calculé sur 0,5 pour cent du chiffre d'affaires mm. boo xamante ni si nii donc mën na doon sax 10 000 francs mën na doon 5000 waaye 0,5 pour cent du chiffre d'affaires mooy li nga xamante ni mënul ñàkk fekkee ab société nga boo xamante ni si nii impôt sur ngay fay waaye nag a concerné mooy entreprise individuelle yi nga ni si boobaa boo pertee amul looy fay. d'accord mais bëggoon naa euh, interpeller la ci benn affaire ndaxte ñu ngiy wax entreprise yi bu fekkente ne gagné woo plus de six cent trente mille par an waruloo euh, fay li nga xamante ne moom mooy impôt dañ la koy baal et pourtant ñiy liggéey même boo dee gagné beaucoup moins que ça da ngay fay impôt. non euh, six cent trente mille boobu muy wax. même par rapport au même même kii même même par rapport donc aux salariés aussi. Mm-hmm. xam nga bi impôt bi si je ne pour cent. c'est de. barème progressif la waaye limite bi 40 mooy 40 pour cent. genre plus ngay yéeg. voilà voilà c'est ça mun ngaa egg ba 40 pour cent. voilà c'est ça yàq 40 pour cent si xaalisu jàmbur bëri na. loolu nag xam nga actuellement ñun euh, ñun tamit si li ñu war a xeex aussi. <laughs> bon c'est vrai que bon loolu tamit war nañu ko mën a wàññi un deuxièmement il y aussi. Mhm. mooy tranche yooyu nga xam ne moom moo la si biir amoon na ay tranche bi il y ñu plus ñu wàññi tranche yi si sama compréhension si pour me tromper. plus ñu wàññi tranche yi moins effectivement après ñun on on aura parce que wàllu impôt dafa doy waar. bon man du si technicien kii moom xam na si dara. gis nga pare maa ngi dem 500000. pare sa salaire bu bu 100 francs bu si yokk pare mu nekkee 500 wala euh, euh, pare 501000 francs rek. Mhm. yaa ngi dugg si beneen. Euh, ah ok dafa am ay tranche yu nga xamante ne yow boo nekkee zéro na looy fay mais automatiquement donc yaa ngi dugg si beneen domaine boo xam ne yow voilà sa bi dafa yokk ba tax parfois mm-hmm. sa salaire day yokk rek automatiquement mu dugal la si benn cadre boo xam ne finalement sa impôt bi dafay yokk à la rigueur sax li ngay gagné du bëri finalement sa salaire day gën a wàcc am donc mm-hmm. en fait Euh, donc euh, euh, loolu la par rapport ak kii mais dañu fay impôt. Mhm. pratiquement tey tey boo seetee Sénégal fii par rapport au salaire ñi fi nekk dans le secteur formel quand amul kenn koo xam ne vraiment donc doo donc doo fay impôt. xëy na nag par exemple au niveau du secteur informel. problème mhm. yëpp foofu la. Mhm. mais dans le formel quand boo seetee salaire boo seetee salaire bi vraiment ku ne war naa mën a fay mën a impôt. biir yaa ngi nekkoon ci ci question bu am solo maanaam lan mooy. intérêt yi nga formaliser. waaw parce que man bu ma dee xool formalisation man ci ni ma ko comprendre ci ni nga expliquer ah. Mhm. peut-être que du noonu mais yaakaar naa ñu bëri noonu lañ koy comprendre mooy bu ñu formaliser woo ñëpp di fay état bi c'est vrai que poosam dina gën a diis mhm. ndax dina gën a percevoir plus d'impôts de la part de secteur informel bi mhm. ak secteur formel bi mais kiy formaliser moom du ci intérêt. kiy formaliser wu ni ma la ko waxee léegi am na ci intérêt yu bëri mën nañ koo natt ci ñett. intérêt yi nga xamante ne si nii da koy tiire ci jëflanteem ak banques yi ci jëflanteem ak état ak ci jëflanteem ak secteur privé bi. bu jëlee banque yi xam nañ ni fii banques yi dañuy participer ci ñuy financer le secteur euh, l' activité économique. Mm-hmm. te ku nekk boo waree dem banque banque dana la laaj bilan. donc am nga intérêt wu nga am une comptabilité. am NINEA am lépp li nga xamante ni si ñu day def day tax nga nekk une entreprise formelle. benn bi mooy ci boo bëggee am ay au crédit boo bëggee am prêt wala crédit. waaw ci wàllu banque yi. ci wàllu banque. waaw bu ko jëlee boo wul doo ci jot. ndax que banque kayit la xam munoo ñëw rek ne ko. Mhm. maa ngi liggéey maa ngi gagné temps gisul trace gisul comptabilité gisul dara ñëw mhm. lebal la pour ñu mun la wóolu il faut nga am kayit. waaw mi ngi noonu. Mhm. donc inter ci njëkk boobu la ba ca tegu mooy wàllu sa wàllu jëflanteeg état yaa su ko appelle la mooy marché état xam na ni marché état boo ko gañee kat état danaan la man bala ma laa fay damay xool ndax yow nga warloog man def nga ko pare mhm. ndax yaa ngi fay say in mhm. waaye tamit bépp avantage boo xamante ne si ni état a am parce que sànq ñi ngi wax wàllu waaye exonération yi wala régime dérogatoire yi sax de manière générale mhm. teguñu ko fekk pour entreprise étrangère yi parce que tey jii nii ki nga xam ne informel la man ma wàll ma waroon a ubbi boulangerie tey jii kat am na agrément boo xam te war matériel bi nga xam ne dama koy importer ñu ne ma ah comme phase d' nga nekk TVA bi nga xam ne da nga ko waroon fay douane baal ñu suspendre la ko ba nga xamante ni si nii ba nga dem ba commencé exploiter ñu soog la kaa ñu soog la kaa laaj. Mhm. su ni man entrepreneur agricole laa ma war a defar sama tool. Mhm. matériel agricole wala boog euh, aménagement hydro agricole yi nga xamante ne si nii war naa ko indi teg nañ régime boo xamante ne si na mën a permettre TVA bañ ca waroon laaj danañ ko suspendre. Mhm. ba nga nekk en phase d' ñu soog la ko laaj donc ñaari intérêt yooyu noonu mi ngi ci formalisé wu. bi ci mujj. muy par rapport au secteur privé tamit dina mën a tax nga mën a jëflante ak yenn entreprise yu mag yi ndax entreprise yu mag yenn yi tamit am na si ñoo xamante ni si nii bala mën a jëflante yow minimum euh, en tout cas du document bi ñu la a laaj ma li nga xamante ni si nii mooy ni ne yaa boo xam ne na am code fiscal ñu mm-hmm. mën a xam yow ndax mën nga leen facturer TVA ndax facture TVA ba nga leen facturer ñoom danañ ko mën déduire voilà ndax ñoom dañuy am intérêt nga nekk koo xamante ni si ngay formel mm-hmm. pour ñu mën a liggéey ak yow mm-hmm. donc ci ñetti niveau yooyu noonu yëpp ci laal rek am na interview bëri yoo xamante ne si nii mu ngi ci mhm. waaye itam toog ci informel tamit wóorul ndax li may wax rek impôt nga dem fekki ko moo gën mu fekk si la waaw ndax di nga toog ay at yu bari yoo xamante ne si yaa ngi toog naan ah man de impôt ba léegi seet see guñ waaye da nga suba rek ñu nuyu si la mhm. te buñ la nuyu see mbir yi dana gën a dis yow mhm. fekkoon ni yaa ngi doon def say obligation nam la nam la ni la waree waaw donc mais parfois loolu dina leen dal ci secteur u travail bi nga jékki sa kaw wala dañ koy dagg déjà à la source. wala am na liggéeykat yoo xam ne ñun moom ñun amuñu problème boobu mhm. ñun. dañuy dagg à la source. Mhm. ñun moom mënoo rëcc. Mhm. waaw su fekkee yaa ngi si fichier bi mënoo rëcc. sa employeur déjà état. su fekkee fonctionnaire bi. moo koy dagg à la source. Euh, sinon euh, donc euh, le patron. su fekkee si entreprise privée nga nekk. moom moo ko moom moo koy prélevé. maintenant la question c'est est da koy reversé. loolu diggante moom ak donc. loolu tam lu jërë ñëwaat la. <laughs> parce que parfois day am entreprise yoo xamante ne nit yi dañuy gis ne ñu ngi leen di dagg impôt mais souvent dañuy jékki-jékki ñu def leen redressement fiscal ndax quoi impôt bi ñu doon dagg nekk ñu di ko fay mais comme moom nu mu waxee nii avant impôt di ñëw jékki-jékki dal sa kaw jaxasa la ku ne di wax loolu moom ku mu dal redressement on va on va en parler jeudi incha allah mais ku mu dal da ngay yor sa làmmiñ di expliquer rek te euh, ñu woon def de sorte que ñu koy def comme ni ñu koy daggee ci travailleurs yi mhm. euh, retenu à la source ndax euh, impôt Sénégal su ma juumlee c'est un impôt déclaratif la mhm. yow yaay jël initiative dem ne man maa ngi def lii déclaré mhm. mais déjà euh, jub boobu ñu bëri amuñu ko te souvent booy dem duñ si sóor avantage yi nga xamante ne lim nga ko léegi que booy dem banque foog nga yor ko boo bëggee liggéey ak état foog nga yor boo bëggee investir il faut nga wane te yow yaa ngi fay impôt ñu ci bëri xamuñu loolu sóoruñu ko donc ñoom bañ a fay impôt bi rek lu ñuy xalaat mooy euh, maa ngi denc benn 18 pour cent maa ngi denc benn 5 pour cent wala maa ngi denc benn 40 pour cent bu nga xam ne état bi waroon na ko xam est-ce que ñu teg ay système yoo xamante ne impôt yëpp dañ koy retenir à la source je vais donner l'exemple de pays européens yi nga xamante ne ku ci nekk boo xasee ba juddu am na benn numéro bu nga xamante ne moom lañ lay déclarer numéro de sécurité euh, sociale loolu lépp looy def looy jënd ak looy jaay looy mun munti def dañ la koy laaj du coup loo def day am trasabilité est-ce que ñun ñi ngi réfléchir ci système boobu nga xamante ne képp ku fi nekk ak activité booy ti def ci es obligé nga fay impôt balaa ñuy ñëw dal sa kaw globaliser la euh, nga fay it ah, xam nga comme ni nga ko waxee léegi ci système déclaratif lañ nekk mhm. administration fiscale day compter maanaam ci bonne foi wu contribuable yi. Mhm. day jàpp ni rek ku nekk la nga am da nga ko déclaré na mu waree. vas donc ñun euh, ku ñëw ni ñu man kat lii laa am. Mhm. wala boog lii laa jote a ci ay retourné à la source dañuy jàpp ni loolu la. waaye mhm. le pendant de ce système là mooy le contrôle. daña laa am nañ ko wóolu ci yow waaye nag du tere bu jàllee danañ ñëw xool ndax yow la nga déclaré woon. demee na na nga ko waxee ilsaay mhm. na dañ naan la nag euh, délai de reprise maanaam ci ñeenti at la maanaam ci période bi gën a gudd boo xamante ne si ni administration mën na cee dellu ginnaaw pour laaj la impôt yo ngi ca warloo wala boobu mu xoolaat la nga xamante ne si déclaré nga ko woon ci lu mat ñeenti at la mhm. donc mën na laa bàyyi ci ñeent wala ci ñett wala ñaari at c'est selon mu ñëwaat toppaat ca la nga déclaré woon mhm. xool ndax kat euh, salaire yi nekkoon ci entreprise yi lañ leen doon retenir bu ñu xoolee ci comptabilité bi bu ñu ñëwee wàllu impôt loolu lañ fa fekk ci ay retenues. Mm-hmm. ndax méngoo na ndax la mu taxe ci taxe sur la valeur ajoutée mm-hmm. ndax na mu calculer bénéfice am ko administration fiscale. méngoo na yooyu yëpp mu saytu ko. Mm-hmm. xool ko bu amee loo xamante ni si nii euh, jaaru sa yoon administration bi dana leen ah man kat xool naa waaye gis naa lii yéeg lii ak lii jaarul yoon yow dan nga ciy tontu nga. indi say nga indi say tontu nga indi say tontu ci loolu. li nga doon wax itam par rapport euh, transaction yeeg yu demee noonu. c'est vrai que nag dans les pays avancés ñoom toll nañ ci feneen foo xamante ni si ñu rawee nañu waaye ma koy wax sama kon xam sama njëlbeen. Mm-hmm. tey jii nii ñu ngi tëral li nga xamante ni si nii mooy euh, le président le programme de rénovation et d'extension. Mm-hmm. des services des impôts au domaine. Mm-hmm. wàllu woowu noonu jël nañ ko en parce que am na li ñuy woowee la facturation électronique boo xamante ni si dana permettre administration gën a mën a am euh, caytu ak gën a mën a bàyyi xel. yi nga xam te ne si entreprise yi ñu ngi koy facturer ak seen i transaction yu demee noonu. Mhm. mais loolu électronique la yaakaar naa ni tey peut-être grande entreprise yi ñoo ci mën a bénéficier wu parfois mhm. euh, pas juste petit et petite et moyenne entreprise yi mhm. euh, est-ce que parfois formalisation bi du compliqué trop pour ñoom. waxoon na administration fiscale mi ngi def ay jéego ndax administration fiscale day jéema def une segmentation des contribuables maanaam contribuables yu nekk selon la taille. mu xool ñooñu naka lay mën a doxale seen gestion ndax am na ñetti régime ñu ñu tëral sax boo xoolee régime bi ci gën bi ñu ci gën a xam mooy le régime de la contribution globale unie mooy bi nga xamante ne si nii la ñu jagleel ko ñi nga xamante ne nii li ñuy am ci at mi rombul cinquante millions ñu leen yéen kat régime forfait la dañuy defal impôt yëpp benn impôt synthétique ngeen fay ko benn yoon ci at mi am na xamante ne si nii dañuy am cinquante ba cent millions tamit ñu leen mën ngeen dem régime du réel simplifié maanaam yéen kat mën ngeen di déclarer chaque ñetti weer donte ni déclaration bi en principe weer wu jot la lu ci mel ni retourné à la source yeeg TVA bi. Mm-hmm. waaye itam bu ngeen demee ba at mi jeex bu ngeen di déclarer seen bénéfice kat. su fekkee ni adhéré ngeen à une centre de gestion agréé loolu tamit dinañ ci ñëw. nekk na loo xamante ni si lu am solo la. bu mm-hmm. ngeen ci adhéré seen bénéfice dañ ko calculer ci 85 pour cent maanaam duñ jël téeméer yi waaye juróom-ñetti fukki ak la ñuy jël. calculer ci seen euh, seen impôt ñi nga xamante ni si ne nañ 100 millions itam. administration aussi jéem na xool nu mel ni ki leen donc c'est selon ku ci nekk taayu entreprise bi nga bi nga bi nga bi nga. c'est adapté daal c'est ci ba ci service mhm. am nañ li nga xamante ne moom la ñu tuddee les centres des services fiscaux moo nekk yi nga xamante ne si nii euh, ñoo lañ leen jagleel euh, les PMI yi nga xamante ne si seen chiffre d'affaires rombul 100 millions. Mhm. waaye tamit pour les PME tamit am nañ li ñuy tuddee les centres des moyennes entreprises am nañ tamit li ñuy tuddee la direction des grandes entreprises. donc c' est une segmentation boo xamante ne si dañu mën a permettre ñun gën a mën a gérer catégorie contribuable bu nekk. da mm. nga xamante ne noonu lay doxalee ci wàllu activité ñu mën cee jéem a adapté wu. ñu ñëw ci benn catégorie contribuable ki leen di représenté nekk Sadi Ngom moom mi ngi nekk fële ca euh, Soumbédioune donc Sadi ñu lay nuyu dina la remercier ci ni ñu rejoindre ci biir émission bi. oui oui effectivement maa ngi leen fay ku si sa tur ak na Rasulullah man bëggoon naa xam ndax ñi nekk ci marché yi. Euh, nekk dans le secteur informel est-ce que yéen a ngi euh, respecté li ñu tuddee fay impôt. waaw ñun nag effectivement fay impôt moom dëgg la dañ ci mhm. parce que marché local ku ne xam na ay fay impôt amu ci. Mhm. marché local li nga li ñuy xam mooy chaque instant juuti mooy ñëw. Mhm. li ñuy woowee juuti ay ticket 200. loolu la ngay fay moo tax man su ma déggee ay impôt ay millions ay milliards <laughs> damay tiit ndax ñun ñuy liggéey sax mënul génne loolu quoi. voilà juuti ngeen di am. juuti la ñuy am waaw juuti. mais mais monsieur le juuti fu muy dugg. juuti ci budget commune yi lay mhm. dugg. waaw egsiwul de impôt et domaine moom taxe taxe communale la. Mhm. egsiwul egsiwul euh, impôt ndax impôt yi am na yoo xamante ni si nii état central la ko moom. Mhm. am na ci yoo xamante ni si ñu ngi ko jagleel collectivité locale yi. boo jëlee lu mel ni li naan sel la contribution économique locale nga jël la contribution foncière sur les propriétés bâties ak. yeneen contribution foncière yu mel ni moom mm. da nekk impôt yoo xamante ne si ni ña ngi ko jagleel collectivité locale yi boo demee ci commune yi itam lu ci mel ni juuti lu ci mel ni euh, taxe publicitaire yi itam day nekk impôt yoo xamante ni si nii wala contribution yoo xamante ne si dañ koy laaj pour commune mais commune bi daf koy garder après daf koy reverser l'état trésor état la ñu koy reverser ndax état mm-hmm. tamit moo yore euh, la gestion de la du budget des communes mm-hmm. donc trésor moom mooy euh, ki nga xamante ne si moom mooy centraliser lépp ceytu geeg euh, gestion beeg jëm ci wàllum commune bi tamit euh, service du trésor yi ñoom ñoo koy gérer. c'est-à-dire yéen a ngi fay juuti ci marché bi comme marché yu bëri da ngay gis waa ji yoon juuti bi di jël kayit gi di dagg di leen jox. effectivement bu ngeen fayee ba pare euh, est-ce que yéen a ngi ciy gis seen bopp par rapport ak juuti bi nga xamante ne moom ngeen di fay mairie. waaw juuti bi xam nga dafa nekk loo xamante ne tey bu ñu ko fayee ci la ñuy bale marché beeg sécurité marché bi. ak li nga xamante ni moom la am ay yenn besoins yoo xamante ni des fois marché bi courant bi day jeex. Mhm. ñun ñoo koy jëndal suñu bopp. Mhm. parce que ay projecteurs ñoo nekk foofu projecteurs yi mënoo toog deux mois te fay wala un mois courant bi coupé wul. Mhm. yooyu noonu xam nga mairie moo waroon jël responsable bi di ko mais duñ ko fay ñu après bu courant yi jeexee wala marché bi des fois bu salté ñu ñoo koy bale suñu bopp comprendre wala. ñu débrouiller quoi. parce que ñun dañuy fay juutu nii rek xam mais ñun ba léegi xamuñu sax xaalis juutu bi di mais yéen yéen a ngi continuer di fay balewuñu courant ñëwul. waa foofu moom mars mujj moom nu mu mel moom franchement parlant actuellement ñun ñu fa nekk neexul parce que déjà marché bi dafa nekk euh, en construction. Mm-hmm. parce que fu ñu nekk ñu nekk si corniche bi à mais foo na foofu on n'est pas à l'aise ak nawet bii di ñëw client yi bëri iscombrant bëgg ñëw mais ay livraison ngay préféré wala wala nga woote ñu mm-hmm. foofu nu mu mel neexuñu quoi parce que bu ñu sañoon marché bi bu mu nekkee en chantier depuis deux ans. ñu terminé ko parce que marché bi depuis deux ans bu ñu nee dans un mois deux mois mu pare boobu ba léegi pareewul. Mhm. ñun dañuy nekk noonu à côté te xam na foo xamante ne président fa lay jàll ñu boo xamante ni pour c'est pour les piétons. Mhm. ñu ñëw teg foofu noonu di jaay xam nga neexuñu quoi. Mhm. parce que ñu tamit ay Sénégalais lañu te ñu bëgg nañu Sénégal mbëggeel goo xam ne bu ñu sayoon képp ku jaar fu piéton di jaar rek duñ fa teg di jaay. xam nga ñu bëggoon nag à chaque fois mairie bi. ak bi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu loolu ñu fexe ba suñu marché bi tijji balaa ay nawet bi di ñëw parce que fi ñu nekk noonu franchement parle baaxul quoi. Mhm. ak euh, insalubrité bi am foofu comprendre occupation anarchique lañ mën a tuddee parce que foofu du palaasu jaaykat. Mhm. marché bi depuis bi ñu ko tëjee depuis deux ans ñu ngi liggéey nag quoi franchement mais liggéey boo xamante ne amul terminaison tamit amul sens. Mhm. ñu bu ñu sañoon suba suba suba ñu mais mais est-ce que loolu yëpp euh, du conséquence su le fait que ñu ci bëri bu ñuy jaay day ñëw nekk loo xam ne lu informel lay doon du nekk dara lu nga xamante ne formalisé nañ ko ba ñu mun ko teg ci yoon euh, comme marché par exemple tey nit bu ñëwee jékki-jékki ñëw di teg table am di jaay mënoo ko ne bu ko fi teg ndax amul benn kayit bu nga xamante ne ñu ngi koy demandé amul benn loo xam ne daal formalisé nañ ko ba ñu ne lii place su Sadio la bu fi kenn ñëw euh, lii mooy ay kayitam am na ni ne am na registre de commerce am mi ngi fay impôt comme il se loolu moo leen euh, yenn problème yi nga xam ne yéen a koy am ci marché ba. waaw nekk marché boo xam ne dafa yàgg c'est depuis parce que marché bi même carte postale yi sax euh, comme village artisanal la Soumbédioune la. Mhm. na marché boo xamante ne tey bu doon bu doon comme am ci yeneen ci biir dëkk bi yeneen marché yi gars yi créé. Mhm. état am na goo xamante ne nii da ci da ciy jóg dindi ko wala wala mu xool yeneen euh, réalisation yu ko mën a def pour marché bi di jëriñ état. Mhm. mais marché bi dafa nekk loo xam ne dafa yàgg xam nga booru géej. kenn mënu fa tere jaay jën. Mm. parce que li olof Njaay di wax rek xam nga ku la fees loo moo la yàq loo géej moom ku ne xam ne jën moom kenn mënu ko fa tere jaay kenn. moo tax marché bi dafa nekk marché boo xam te ni man moom ni ma gis nii nii nii xam nga. amul benn nit boo xam te ni mooy ñëw ne bu teg fii wala bu jaay wala leneen parce que su même villageois yi ku ñëw foofu da lay boole suñu bopp. Mm-hmm. amul xaj ak seen amul lébu man maa ngi ni géwél laa mm-hmm. instant yi war na ma fekk ci sabar yi may tëgg ko way mais mm-hmm. bu ma juddoo ba léegi laa xam ci ci jël sama jaboot kon nekk na marché boo xamante ni comme li nga wax noonu c'est très important amuñu benn boo xamante ni dañuy dañuy ñëw identifier la jox la sa place ne la yaa moom fii di fay impôt di fay loolu moom franchement parlé amu ci te ñun bu ñu sañoon sax loolu noonu day ñëw xama ku si nekk xam valeur bi nga teg lan la di jariñ état di jariñ sa bopp voilà c'est comme ça alors est-ce que du lii moo gën a euh, métti li nga xamante ne mooy impôt bi ngeen di fay parce que ñun par exemple da ngay ñëw ngay jaay guro wala je dis euh, exemple lay joxe nga fekk kenn teg table nga teg table si yow tam commencé yow tamit jaay doo jëm a xool yan démarche ngay war a def pour dëppoo ak yoon dëppoo ak fiscalité est du lii moo gën a diisal impôt yi si seen kaw. waaw yaakaar naa loolu bokk na si mooy que ne xam nga aussi ñëpp xam nga boo demee marché comme ni mu ko waxee c'est vrai dañu war a formaliser ñëpp war a fay impôt mais ñëpp aussi du ñu benn koo xam ne par exemple moom li muy jaay table bu ndaw la yokk son chiffre d'affaires journalier bénéfice bu mu mën a am xëy na du dépasse cent mille francs mm. te si mille francs boobu la war a dundalee njabootam nga bëgg ko laaj impôt voilà xam nga kooku su fekkee mi ngi fay deux cent francs taxe boo xam ne day dem mairie mm. kooku également buñ ko naree wax moom tamit en plus de cela dafa war a am impôt bi mu war a fay. Mm. boobu dafay xam nga yaakaar ne ñooñu sax am na ñoo xam ne na ñoo xam ne kenn du leen daal sax impôt. donc ñooñu c' est moins problématique am na ñoo xam ne nag ils sont là c' est des ou bien ñoo ngi def leneen c' est des artisans ou bien ñoo ngi si leneen ñoo ngi si informel ils ont un grand chiffre d' affaires ils se font argent mais ils ne sont pas signalés bokkuñu yi fiscaux yi xamuñu leen mm. du ñu fay impôt. ñoo ñooy véritable problème bi te lu tax ma wax ne ñoo ñooy véritable problème mooy que ne xam nga euh, pratiquement yaakaar naa état bi am na fu mu fayiree tuuti c' est par rapport à la formalisation xam nga su fekkee par exemple yaa ngi lancé une campagne de formalisation te euh, ki nga koy wax effet comme ni nga ko waxee yaa a des avantages mais su fekkee par exemple moom gisu avantage yooyu moom li dañu yaakaar ne souvent dans le tête que bu ñuy formaliser c' est pour non seulement un pour gars yi di fay mais également pour état mën a gis am transparence dans le dans donc dans le. Euh, si li ñuy def si li ñuy def. mais est-ce que est-ce que état warul am transparence. si li non xam naa war na am transparence mais su bokkul ak communication. parce que l'être humain par par principe il est un peu réticent. surtout ñu nekk dans dans l'informel. ba pare ñun ci suñu cerveau. nit wax xam li ngay gagner. Sénégalais voilà ils sont un si donc donc si yenn nii. donc il faut une bonne campagne de communication sensibilisation pour xam ne. bu ñu leen di formaler c'est pas seulement pour ñu leen di fayeku impôt mm-hmm. te également même par rapport ak transparence financière boobu aussi am na solo donc yaakaar naa boobu lu am solo BPN bi aussi boo xam ne am na euh, ma profité ma wax ko si par rapport aux travailleurs mm-hmm. nee naa la vraiment ñun moom toujours li ñuy ñaan daal mooy nañu wàññi fiscalité sur les salaires mm-hmm. parce que dafa metti xam nga euh, la mos non seulement ñu rek ñooy fay pratiquement da ngay fay sa impôt don dañ koy prélever sur nga jot sa salaire nga dem tu vas dans un commerce. jënd di jënd on te on t'applique une une TVA de 18 pour cent. je ne sais que. est-ce parce que yow déjà bi ngay liggéey prélevé nañ la. lépp looy. jënd yaa yaa ngi dem consommé. voilà pour jënd ak looy dundalee sa njaboot. également moom tamit ñu la donc une TVA pour cent. xam nga yooyu tamit vraiment pour ñun dañ ko a mm. même TVA bi war nañ ko mën a baisser. mais à condition comme ni mu ko waxee. état bi fexe ñëpp fay impo bon ñii mën a fay impôt parce que am na ñoo xam ne également comme ni nga ko waxee koo xam ne vraiment 1000 francs lay am par jour si lay dundalee njabootam kooku mënul fay impôt am na ñoo xam ne mën nañu fay am na xam ne mënuñu mais ñi mën a fay impôt dañoo war a fexe ba ñëpp fay impôt bu ñëpp fay impôt rek yaakaar naa muy TVA mën nañ ko baisse taxe ñu teg si produit man mën nañ ko baisse te ñun pratiquement en tant que travailleur sax ñu wàññi bi moo ëpp impact suñu salaire que ñu yokk parce que si tey tey bu ñu jógee ni par exemple yokk salaire bu ñu yokkee salaire sa salaire boobu su yokkoo rek. sa impôt yokk sa donc y a un manque à gagner plus également ça crée de l'inflation. Mm-hmm. parce que bu ñu nakkee donc day yokk day day yokk prix bu ñu waxee salaire yokk nañu rek day créer euh, donc inflation donc à l'arrivée toi tu perds. alors mm-hmm. que ce qui euh, bi la ñu wàññi yow si ngay gën a sentir les mesures de l'État par rapport ak yow sa dund. Mm-hmm. et puis bu ñu ko wàññi ci salaire bi wàññi ko ci li ngay dundee sax yow it li ngay doon dépensé. voilà euh, dafay gën a wàññeeku mais dafa wax lu important déjà euh, yow yaa ngi fay sa salaire tous les mois ñi ngi def euh, retenu impôt après booy demaa jënd da ngay fayaat loolu du fay doublement. waaw man mi ko gisee noonu waaye xam nga fiscalité dafa nekk loo xamante ne si ay pàcc la. Mhm. dafa am lu ñuy tuddee fiscalité personnelle boo xamante ne si ci nit ñi direct. lay lay lay lay lay dal buñ la la bu bu bu buñ la ci compéré da nga koy yëg. Mhm. l'effet se ressent directement. am na loo xamante ne si ni aussi fiscalité indirecte lu mel ni TVA peut-être moom sax xam na ni mi ngi fay TVA am ñoo xam ne sax xamuñu sax li ñuy fay. ay mhm. taxes bu ñu demee di jënd Auchan wala bu ñu demee di jënd boutique wala bu ñu demee feneen. Mhm. donc dafa nekk impôt boo xamante ne c'est un impôt indolore. mais boobu nee na yaa la boobu ci ñu lay ñoo xam ne dañ ko ciy calculer waale. Euh, parce que ñoom bi ñuy jënd tam ci ku mag lañ ko jëndee kooku mi ngi fay tax mi ngi déclaré ñoom dañuy fay taxe bi même bu ñu la joxul ticket de caisse. seen bénéfice dañ ciy impliqué waale TVA bi jaayaale la ko avantage informel. Mhm. informel parfois ñoom da boo demee si ay boutique wala kii ñoom bu ñu lay jaay ñoom duñ la appliqué TVA. mais est-ce que duñ en ma man je me dañ la koy appliqué mais doo ko doo ci rendre compte parce que moom day dem jënd ci ku mag n'est-ce koo xamante ne kooku day dugal taxe si li mu koy jaay donc moom buy calculer bénéfice am même bu la bindalul TVA euh, impliqué na ko ci. waaw xam nga TVA moom mécanisme impôt boo xamante ne nii ni muy ni muy ni muy doxee dafa xaw a wuuteeg yeneen yeneen impôts yi. donc man ma ne impôts yi dafa bëri te wuute. Mm-hmm. mën nga am impression que ni da ngay fay. Euh, ñaari yoon ñaari <laughs> waaw mën na nekk une perception. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee léegi impôt sur le revenu maanaam loolu si nit ku nekk la. boo jëlee TVA c'est sur les transactions maanaam suñu jokkalante ni ñuy def dans la vie économique ci loolu noonu la aju c'est sur les transactions. mais ça mais ça impacte sur ton revenu. ça waaw ouais, ça impacte sur le parce que c'est un impôt sur la consommation. boo consommé rek da ngay fay TVA. donc c'est un impôt indirect. bu teg un impôt personnel wala un impôt direct bu mel ni IR bi nga xamante ne bu ñu koy calculer sax dina jël en compte sa situation de famille. Mm. parce que ki nga xam ne dafa am ñetti doom ak ki nga xamante ne si dafa am ñeenti doom bokk na lu ñuy fay. waaye TVA itam nekk na loo xamante ni si nii. c'est un impôt sur la consommation comme ni ñu koy waxee c'est le consommateur final qui la supporte sànq yaa ngi wax léegi par rapport ak entreprise bi nga xamante ni si nii jënd na ci keneen kooku facturé ko TVA. Mm-hmm. entreprise boobu noonu boo xoolee en réalité moom TVA boobu noonu du ko supporté parce que bu nekkee koo xamante ni nii formel na. Mm-hmm. maanaam moom lan ko facturé buy jaay day dindi ci TVA bi nga xam ni si nii facturé na ko ba muy jaay différence boobu noonu lay reversé et par ce jeu là amul dara loo xamante ni si nii day impacté trésorier loo xamante ni si nii wàllu TVA. Mm-hmm. donc consommateur final. ah moom day calculer day calculer euh, prix de revient wam. waaw def euh, ñaata la jëndee calculer bénéfice am def prix bi soo kee teg TVA bi. c'est le consommateur qui. ça. waaw maanaam bon mën mën na mën nañu jàpp ni TVA bi ci valeur ajoutée bi lay lay lay lay lay lay appliqué wu en fin de compte ndax man. bu ma jëndee finalement li nga wax c'est vrai que ci consommateur bi mooy supporté bu ma jëndee 100 def ma ci TVA wu 18 ma jaayee teg sama marge def teg ci TVA. boo jëlee différence bi moom laay reversé donc daanaka day mel ni rek man ci marge bi rek moom laa moom laa moom laa moom laa kii moom laa facturé TVA. Mhm. donc mécanisme TVA noonu la tëddee c'est un mécanisme boo xamante ne si nii c'est un peu beaucoup plus pour les entreprises que pour les autres natures mhm. de waaye tey jii nii li mu wax tamit am na solo ndax euh, état moom boo ñëwee bu mel ni suñu état bi nga xamante ni si nii impôt moo ëpp ci li nekk ay ressources am. Mhm. ñaari option rek la am ndax tamit. état tamit lu ñuy gën dem population bi di gën a màgg les besoins sociaux di gën a yokk les besoins en investissement public di gën a yokk moom it fa mu mën a xool nan la mën a yokkee ay revenus yoon te bu fekkee da koy jaar ci fiscalité ñaari choix la am soit danaan ah baal ma yokk fiscalité bi wala boobu baal ma étendre ko ba nga xamante ne si nit ñi ëpp dinañ mën a fay waaye tamit dina tax sax mu gën a oyof mm-hmm. donc ñaari option yooyu noonu la am te tey jii nii Sénégal option bi mu jël boo xoolee tey jii boobal mooy fexe ba ñi war a fay ñëpp mën a euh, ñëw ñi ñi mën a fay war a fay yëpp daal di fay. Mhm. donc boo xoolee tey jii nii ci ci ci ci loolu la la ñu nekk waaye tey jii nii pour baisser les impôts dina xaw a métti tuuti ci ci ci ci ci ci ci état bi. Mhm. ndax comme ni ñu ko waxee sànq contribuable yi nga xamante ni si nii ñu ngi nekk suñuy suñuy fichier ak ñi nga xamante ne si ñoo ci waroon nekk am na gab boo xamante ne si ñi ngi war a def rattrapage boobu noonu donc bu ñu yéegee peut-être à un niveau appréciable. Euh, ci liggéey boobu noonu danañ mën a waxtaane yeneen yu mel nii wàññi impôt yu yu mel noonu te gëm naa ni incha allah yoon wi ñu nekk buñ ko wàccul loolu dinañ ci mën yegg. alors ñi nekk ci secteur informel bi ñu formaliser leen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci entreprise yu ndaw yi. fay impôt ñiy jënd ak ñiy jaay ñëpp fay impôt xam naa ni loolu du nekk loo xamante ne lu yomb la pour ñu généraliser ko mais euh, Sadi est-ce que jàpp nga ne tey euh, bu ñu formaliser woon euh, marché ba daal di organiser yéen ñi fay jaay ñëpp c'est ban avantage nga gis ni moom ngeen ci am parce que souvent comme ni ko monsieur Diallo waxee sénégalais bëggul déjà nga xam ñaata lay fayeeku dañ naan la sa li ngay am waroo ko wax kenn waru ko yëg Euh, benn transparence bi ci suñu revenu yi di dugg duñu bëgg nit ki xam ko et souvent dafa am benn vision bi nga xamante ne moom lañu gisee fiscalité ak ay taxes muy vision bu bu bu xaw a négative comme quoi euh, sama xaalis bi may gagné moom la ñuy ñëw pour reprendre ko pour rien du tout genre si bopp ñu bëri noonu la ñu ko gisee est-ce que yéen jàpp nga ni am na avantage yu nga xam ne war ngeen ko am tey ci organiser wu formaliser wu ak euh, lu ngeen di gagné lu mu tuuti tuuti. waaw loolu noonu xam ah, nga loolu loolu tax du yomb parce que comme li sama grand wax léegi léegi rek euh, parce que loolu c'est très important parce que marché dafa nekk euh, surtout marché local yi. Mm. benn maire buy parce que bu ñu nee marché Soumbédioune jaaykatu légume baa ngi ci biir jaaykatu cere baa ngi ci biir jaaykatu jën baa ngi ci biir jaaykatu yeneen ay produits divers yoo xamante ni sax bokkul ak jën parce que marché Soumbédioune la ñuy wax comme ni mu nee marché Tilène ak ku ñu comme ni ñuy waxee marché Gueule Tapée ak yeneen marché yi nekk si biir dëkk bi. nga tey ki nga xamante ni euh, tey chiffre d'affaires am. ay 2000 francs lay dàq par jour. Mhm. wala 1500. Mhm. wala koo xamante ni day lal une valeur de 7000 war ci 8500 bénéfice 1500. Mhm. war a dem dundali njabootam ak fi jamono ji toll nii. ñu naan ngay wax ay waxu impôt kooku boo ñëwee sax est-ce <laughs> du la sax dégg boo ko doon rey sax du la la wax ay waxu impôt. man avant may jox euh, wax ci waxu impôt dama jàpp ni affaire impôt comme ñu yor ay kër wala ñu yor ay société ñu yor ay immeuble yu fayee ko ay millions par weer wala ñu yor yenn sociétés yi nga xamante ni nii. dina rapporter bo dina rapporter maanaam boromam dara. Hmm. loo xamante ni c'est des centaines de millions man loolu laa jàppoon moom mooy bi nga xamante ne nii ñooy wax waxu impôt. Hmm. comme juuti yi ma la doon wax nii. ñun man bu ma. ñaata ngeen di fay juuti. 200 francs lañu dagg. par jour par jour. soo daggee 200 francs ñu jox la suus bi nga nga nga garder la te place bi. suuf bi day am ku koy ñëw contrôler après wala. amul ku koy ñëw contrôler franchement. bu bëñoo compter. léegi boo bañee fay nu muy demee. non boo bañee fay. bu juuti bi ñëwee ngeen ko fay ma tey. des fois gis ku ñëw tàppanteeg moom kafa moom da koy yii tey soxee kooku ma mu la ko waaw d' accord maa ngi dem ñëwaat su demee ñëwaat su comprendre mun du ñëwaat parce que taabal bi kenn identifié wu. Mhm. da ngay ñëw yor sa table daaj ko ñëw teg jaay. Mhm. dem place yi kenn amul place fixe tey su ma la su ma xëyee suma teel damay xëccoo place gën a baax su ma la fa jiitoo so loolu sa problème la ëllëg si biir da ngay xool place bi gën a baax ainsi de amul place fixe fu la neex ngay lal kon xam nga loolu moom ay waxu impose lii moom mënoo ko formaliser. voilà <laughs> lii moom impôt lu ngeen ay ay mënoo leen ko formaliser. ndax place bi déjà ils ont pas de place fixe. voilà je pense que pour ngeen formaliser kenn il faut mu am adresse bu fixe. am information yi nga xamante ne ci ngeen di mën a basé wu tey bu ngeen doon formaliser kon kan lay concerner réellement. waaw hmm. ah, ma ko ni ma la ko waxee rek mooy que formalisation bi moom. est-ce que par exemple comme nu mu waxee ni que koo xam ne mi ngi lal table am li fa nekk matul mille bénéfice bi mille lay nekk est-ce que kooku da koy formaliser. à partir de kañ ngeen di ñëw formaliser. maa la koy sànq am na ñoo xamante ne si ni waxuñu sax exonération parce que exonération day fekk yow nga nekk. nga a fay état bi kat pour une raison technique pour une raison économique wala pour une raison sociale. Mm. mu exonéré waaye am leen dama baal mooy li ñu doon wax sànq ñi nga xamante ne si ni amuñu lu mat 630 bi ci at ñooñu état dañu leen man jéggal naa leen waaye képp koo xamante ne sii nii yow weesu nga sëy boobu noonu am nga revenu boo xamante ne sii nii war na laa mën a permettre kat donte ni lu tuut la sax nga war koo mën a contribuer formalisation bi dina la concerner. Hmm. koo xamante ne si ni peut-être euh, commerce à l'étalage lay def wala yu mel noonu wala maire boo xamante ne si nii. day yàqantu noonu rek pour am loo xamante ni da ko mën dundale koo xamante ni si na mën a nekk peut Euh, si sëy yoo xam te ni daa war a nekk koo xam te ni daa war a fay euh, impôt mel noonu. mais 630 000 bi ku ko amul baal nañ la est-ce que day concerner travailleurs yi tamit. ñëpp la concerner ñëpp ñi am revenu rek. ku ci amul 630 000 tey nii boo amee même su nekkee da nekk ci kii boo xamante ne si nii. yaa ah, xam par par mois par année. 630 mais 630 000 par année tam tuuti na. ah boo xoolee tey jii ah, nii SMIC bi. loolu si si lan lañ basé parce que boo xoolee tey jii Sénégal parce que boo xoolee te jii nii le revenu minimum. en tout cas au Sénégal boo xoolee pour yenn euh, emploi yenn yi boo xoolee ci. proportion yi noonu la toll. 52 57 50 000 entre 50 000 55 000 noonu. loolu tuuti na vraiment. 52000 pour un mois. waaye itam tey jii mais mais ça c'est sur le principe ça c'est sur boo amee par exemple ci at waaye am nga jabar am lu mat ñetti doom wala ñeenti doom am na nu ñuy calculer sa tamit mën ngaa bañ fay parce que moom ni mu ko doon waxee léegi. impôt ba nekk un impôt personnel. c' est c' est calculé selon la su ma juumulee nee nañ doom boo am 0,5 pour ci impôt. non. doom boo am cinq part la waaye part bu nekk. dafa am valeur am. dañ naan ko am 0 ku am 1,5 euh, part ba ñaata part lu gën a néew lu ñu lay teggil ci impôt lii la li ci gën a rëy li ñu lay teggil lii la ba mu yegg 5 part 5 part mooy limite bi. ba nga xam 5 part mooy 5 part boo xoolee mooy. Euh, juróom ma expliquer ba part yi. tey boo amee boroom kër wala nga am soxna. Mhm. ba nga nekkee célibataire benn part nga amoon. maanaam yow amul lu ñu lay wàññi. boo amee soxna wala nga am borom bu gën a bi nag. célibataire ñu gën a fay impôt ñu ngi noonu. yàlla baax na. boo amee soxna nag wala nga am borom kër dañ lay dolli uh-huh. léegi nga am 1,5 part. Uh-huh. léegi 1,5 part boobu noonu dañ naan la minimum bi ñu lay wàññi sa impôt lii la maximum bu ñu la mën a wàññi lii la day am pourcentage dañ naan la peut-être 15 wala 20 pour cent lay wàññi waaye mënul gën a néew lii mënul ëpp lii itam. Uh-huh. bu ñu defee ab diir nga am beneen nga nga am tout tànk ñu ne la amaat nga 0,5 part. Mm-hmm. di la ko di la ko defal noonu di la ko defal di la ko defal noonu boo yeggee 5 nag moom plafonné nga. Mm-hmm. cinq part mooy maximum bi nga xam te si war nga koo mën nga koo mën nga koo am. d'accord. 5 part nag boo ko amee nag ñu ne la ah léegi nag li gën a néew. Mm-hmm. li ñu lay kii li ëpp lii la waaye. su situation de famille lu muy gën di évoluer rek. li ñu lay wàññil itam di gën di yokk ci. ci impôt. d'accord donc am na revenu booy am selon nombre de parts bi ngay am sax yenn saa yi bu ñu calculer sa impôt dañ naan ah kii kat warul fay parce que li mu war a fay ak li ñu ko a néew sax. ñoo mhm. tolloo wala lee moo ko ëpp. d'accord mhm. boobu te pour ñun dañ ko war a. dañ ko war a yokkaat également vraiment taux bi dañ ko war a yokkaat parce que yooyu yëpp dafay contribuer si lii si lii abaissé impôt bi liggéeykat bi war a fay mhm. mais comme ni comme ni mu ko waxee ñun tamit euh, du ñu ay anarchistes du ñu ay euh, démagogues Euh, loolu yëpp boo koy def day fekk ñëpp ñi war a fay yëpp di fay parce que du ma ne ñëpp di fay parce que ñëpp ñëpp mënu fay impôt mais ñi war a fay laa wax day fekk ñi war a fay yëpp di fay impôt yaakaar naa loolu moom su amee rek dafay gën a yomb mhm. te état bi aujourd'hui défi majeur bi yaakaar naa côté boobu la mhm. pour ñëpp fay mais pour ñëpp fay il faut ñu mën a déterminer ni que ñii ñëpp ñi ngi gagné plus de six mille par mois détermination bi est-ce que dina nekk loo xamante ne liggéey bu yomb lay doon ci yéen euh, comme ni ma ko waxee tout à ci kaw dëkk bu nga xamante ne ñun euh, liquide bi day circuler mhm. facilement mhm. Euh, mun nga jënd loo xamante ne valeur bi sa dafa rëy nga ñëw jël sa liquide teg ko et pourtant yenn dëkk yi am na montant bu nga xamante ne mhm. mënuloo ko dépasser mënuloo ko fayee en espèce tu es obligé nga wala tu es obligé nga fay par euh, carte bancaire en tout cas lu am traçabilité mais ñun dañu liquide sénégalais dafa liquide bañ nañ ko ba bu weer bi deewee da ngay gis que euh, guichet yi ñëpp dañuy toog ran ñi nga xam ne seen salaire mi ngi jaar banque yëpp dañuy ran di ko retirer pour def ko suñu poche di di di dépenser loolooy dalal suñu xel dañu liquide torop est-ce que euh, déterminer que nit ki tey mi ngi gagné plus de 630 000 par an dina nekk lu yomb pour mun leen imposer ñu fay seen fiscalité ndax ñëpp war a fay Mm-hmm. xaalis bi fi ñu koy dugal ñun ñëpp ko bokk. Mm-hmm. waaw loolu dafa nekk mandarga wu secteur informel boo xam te ne si ni mandarga boo xam ni dafa sax si suñu réew yi nga xam te si ni ay pays à revenu intermédiaire lañ wala suñu nekk ay pays pauvres ndax boo xoolee rapport BIT bu mille 2020 bi xamal nañ ñu ni 62 euh, pour cent. Mm-hmm. maanaam téeméer boo jël. juróom-benn fukk ba ak ñaar loo xamante ni si nii ñu ngi koy produire ci suñu économie ci informel bi la jógee. pour cent. 62 pour cent de notre PIB. yéen loolu boo ngeen ko boo xoolee ci pays yi nga xamante ne si ay pays ay pays à revenu intermédiaire ay pays pauvres. Mhm. fukki liggéeykat yoo jël itam juróom-ñeent ya ci informel bi la ñuy xëy. tey boo jëlee bis wala nga jël Ndiaga Ndiaye booy xëy ña ngi ca bokkal ñëpp boo def ndànk fukk ya juróom ñeenti yi boo leen jëlee ci informel bi la ñuy xëy. Mhm. donc xam nga ni loolu kon bëri na. Mhm. dafa nekk ñoo xam ne si nii <clears throat> taux de bancarisation bi tax koo demee noonu. loolu la c' est des gens qui pas souvent dans le <clears throat> secteur financier donc appréhender leen day day day day day jafe parce que mm. entreprise bi nga xamante ne sii nii am na compte bancaire entreprise bi nga xamante ne si nii mi ngi jëflanteeg ay entreprise yoo xamante ni dans le secteur formel la ñu nekk. Mm. kooku noonu administration bëri na ay moyens yoo xamante ne sii même bu nekkoon en marge euh, du système fiscal mën nañ dox ba. ba appréhender ko waaye ki xam te si c'est un entrepreneur individuel boutique am la commerçant la yor euh, commerçant la peut-être sax buy importer yenn saa yi bagage yi muy indi du ci turam lay ñëwee groupage lay groupage lay nekk waaw kooku noonu xam nga yenn saa yi jot ci moom jot ci moom dina dina dina jafe mhm. waaye euh, itam bu ñu demoon sax ba ci biir itam pour fay impôt parce que tey jii nii euh, ñu ngi dans une dynamique de digitalisation de télédéclaration de télépaiement donc yooyu noonu yëpp day nekk yoo xamante ne si nii kooku noonu après pour mu nekk koo xamante ne si nii dinañ ko mën a indi ci système boobu noonu. day dina dina compliqué moo tax nag formalisation dafa nekk lu yaatu administration fiscale yi ñëpp ci war a nekk ñoo xamante ne si nii dañ cee war a jàpp pour accompagner les entrepreneurs indi accompagner les commerçants. tey jii nii sànq maa ngi doon wax lu jëm ci wàllu CGA yoo xamante ni si nii en relation avec les chambres de commerce et de métier ko mettre woon en place. Euh, waaye ba tey euh, vulgarisation bi des na. waaye mhm. ñu ngi def ay jéego pour mën koo gën a redynamiser gën koo mën a yaatal ba nga xamante ni si nii aussi ñoom dinañ mën a nekk des interlocuteurs euh, tampon entre informel beeg administration fiscale nañ leen mën a itam di leen accompagner seen formalisation lu dem seen comptabilité ak seen i déclaration ñu leen ci. Mhm. am na fi ay structures yu mel ni ADPME tamit yoo xamante ni si nii dañuy accompagner les PME. les chambres de commerce tamit et de tamit nekk nañ ñoo xamante ni si ñi ay partenaires administration fiscale yi te ñoo xamante ni si tamit war nañ ñoo gën a mën a jàppale ci wàllu woowu donc formalisation c'est du point de vue administratif mhm. de façon générale nekkul ni rek impôt waaye bépp bànqaas boo xamante ne si nii wàllu administration la loo xamante ne si dafa jëm ci wàllu accompagnement wàllu wàllu assistance itam yooyu yëpp dañuy nekk ñoo xamante ne si nii dañ leen soxla ci wàllu woowu noonu pour ñu mën a xamal avantage acteurs yooyu noonu lan moo nekk ci avantage yu formalisé wu ak tamit lan leen mën a indil ak yu mel noonu mais est-ce que formalisation en dehors de volonté politique en dehors de liggéeyu euh, direction des impôts et domaines ak euh, lu ci mel ni ADPM ak administration bi ciy liggéey est-ce que warul nekk euh, une volonté personnelle boo xamante ne si nit yi lay jógee nekk man kat maa ngi si dëkk bi maa ngi liggéey maa ngi jëriñu war na am loo xam ne dama koy delloo sama dëkk pour ñu mun di investir di tijji école di tijji ay poste de santé di defar ay tali di euh, def ay investissement yi nga xamante ne ci doomu aadama la bi lay ñëwaat mais aussi euh, su ma bëggee jot ci marché état mun ci jot su ma bëggee am ñu lebal ma ma am ko waaw xam nga loolu moom euh, ñaari mbir la am na ñoo xam ne xam nañu mm-hmm. waaye <laughs> c'est ça hein loolu tamit am na. Uh-huh. am na yoo xam ne xamuñu. ñi xamul ñooñu bu ñu sensibiliser mun nañu am mun na am vraiment ñu si bëri. vraiment ñoo ñu rejoindre dugg si biir euh, formalisation bi. Uh-huh. am na yoo xam ne nag dañoo bëggul. Uh-huh. dañu yaa dañoo yaakaar ne loolu dafa leen arrangé wul. mais loolu yëpp également ñàkk xam la un. deuxièmement aussi il faut de sanction aussi après. man je pense que koo xam ne xamul ou bien mënul. mais am na yoo xam ne xam nañu mën nañu ils ont beaucoup d' ay centaines de millions ay millions ay dizaines de millions la ñuy gagné. Mhm. ay centaines de millions la ñuy mais dañoo dugguñu. bugguñu fay bugguñu fay. yaakaar naa ñu mel noonu dañ leen war a également topp également sanctionner leen aussi c' est extrêmement important. Mhm. beneen bi mooy que nit ñi dañu war a xam comme ni mu ko waxee c' est que formalisation bi du njëriñu affaire fiscalité kese la formalisation am na beneen njëriñ am solo mooy la protection sociale. Mhm. tey aujourd'hui également dañoo constaté que ñi ëpp si liggéeykat yi. Mhm. pratiquement seul vingt cinq pour cent ñoom ñoo am protection sociale formelle. Mhm. nga xam ne par exemple ñoo ngi caisse de sécurité sociale. Euh, am nañu couverture caisse sécurité sociale am nañu également. caisse de sécurité sociale pour euh, mooy boo feebaree. pour boo feebaree. di faju am prise en charge pour euh, kii familiale yi allocation familiale yi. Mhm. IPRES également pour la retraite. mais également aussi protection sociale sur le plan donc volet prise en charge médicale. Mhm. te ñett ñooñu mooy li gën am solo te ñu bëri su fekkee impôt bi rek ngay gis. Mhm. vraiment yaa ngi tardeel sa bopp te yaa ngi yàqal sa bopp si lu donc euh, donc si lu bëri. Mhm. yow boo fayee impôt sa njëriñ la comme ni mu ko waxee. di nga mën a accéder également donc à des financements au niveau de la banque di nga mën a également euh, accéder également à des de l' en plus de cela également di nga mën a bénéficier d'un système de protection sociale. Mhm. yow ak sa njaboot. sa ëllëg également pour boo demee ba liggéeyatoo. Mhm. nga mën am également une prise en charge au niveau de la retraite. Mhm. soo feebaree wala sa njaboot feebar ñu mën leen faj yaakaar naa loolu moo gën a am solo te loolu également aujourd'hui yaakaar naa euh, le défi par rapport à la formalisation am na aspect fiscalité mais am na benn aspect bu gën a am solo m wàllu protection sociale. moo tax yaakaar naa dañ leen war a gën a ñaax vraiment pour ñu. dugg si formalisation bi mën a fay impôt euh, parce que boo seetee loolu même sur le plan de de la religion islamique xam nga nit également kii dafa am dañuy dindi asaka. ku ne at bu ne effectivement day ne da ngay seet par rapport ak li nga am loo xam ne xëy na laaloo ko woon. Mhm. am na temps loo xam ne da nga si war a dindi nga joxe ko. Mhm. pour la communauté. donc yaakaar naa loolu impôt également même fonction bi la am. te également yaa ngi fii yaa ngi yaa ngi ci Sénégal yaa ngi liggéey yaa ngi sant yàlla. yaa ngi profité yaa ngi profité yaa ngi daw ci tali yaa ngi daw ci tali yaa ngi dugg si si lii effectivement courant baa ngi nii ndox baa ngi nii effectivement bien que naka yaay fa yenn yi. Uh-huh. mais li tax loolu lépp am dañoo investir. Uh-huh. war ngaa mën a contribuer également pour améliorer la situation. Sénégalais yi et puis en attendant xaalisu pétrole bi di ñëw sax il faut ñu fay impôt ñun euh, a dund convenablement comme li ñu wax mais da nga wax lu important tout à l'heure boo koy fay si ngay ndax gis nañu mag yu bëri yu nga xamante ne ñu ngi ci système informel bi Sadio xam naa question boobu yow laay bàyyi nga répondre si dañuy nekk si système informel liggéey seen dund yëpp mais après bu ñu xasee ba toog bu fekkee amuñu dara loo xam ne économiser nañ ko wala doom yoo xam ne reprendre nañ flambeau bi dañuy dañuy dañuy dañuy galérer pour mun a añ pour mun a reer pour mun a def besoin yi nga xamante ne moom moo gën a ndaw bu ñu feebaree parfois duñ dem à l'hôpital pour faju dañ naan su ma demee de toute façon liñ mën a laaj dafa bëri yoruma ko donc dew ma est-ce que euh, formalisation bi nan nga jàppee ni tey euh, la ñu ci war a communiquer ak yéen ba mu dugg ci seen euh, ni ngeen di fonctionner ngeen xam ni que bu ngeen formaliser woo seen njëriñ la par rapport ak investissement seen njëriñ la par rapport ak bu ngeen bëggee prêt mais seen njëriñ la pour santé pour retraite bi aussi. naka nga jàppee ni. waa waa DGID noonu la ñu war a euh, ñëw waxtaan seek yéen nan la ñu leen war a présenter formalisation pour que ngeen mun si dugg. ñun ñun actuellement ñu ngi nekk si marché local bi. Mhm. à chaque fois suñu marché bi bu neexee ñu jaay am une très bonne recette. Mhm. sa xel sax du dal parce que da ngay xalaat retraite day ñëw. parce que en étant jeune. boo mhm. xoolee sa bopp xam nga jeune da ngay rafet nekk ndaw du jot sa sa am sa doole am sa doole <laughs> man je suis en ce point actuellement parce que ne ma yenn âge yi. Mhm. xam nga j'ai que 40 damay xool sama yenn grand yi nga xam ne dañuy am ay 60 ans ma xool leen situation ñuy dund tu comprends nga day métti parce que dangay dem ba marché boo fa nekkee marché local am na âge booy sax dootuñu jënd si yow. Mhm. parce que dañuy xam ne génération bi tu comprends ba ci loolu ba ci tailleur yi sax da ngay gis ay yenn tailleur yu màgget yoo xam te ne xale jigéen ñi dootuñu leen ñaw la. <laughs> yaa ngi de parce que ñàkk ngeen kersa nag. <laughs> effectivement yaa ngi dégg comme y a des nouveaux yoo xam te ne dañuy créer seen ménage je comprends du toggal seen jëkkër ay gambas ay crevettes ay coof au four. Mm. ay yenn jën yi jaay ay jën bu mag. nga tey jii ak yenn fruits de mer fruits de mer yu baax yi Omar di joxe noonu Omar di joxe Omar Omar tengaa moom tooñaale ko apparence <laughs> léegi genre affaire de mel boo xoolee mag ñi nga xam te ne ñoo ñu jiitu si tefes bi. sa yaram day daw parce que da am benn âge yoo xam te ni dootoo mën am yenn facilité yi pour am xaalis léegi au retour da ngay bu fekkee yow li nga joxe liggéey sa àdduna investir oo loo xamante ni day nekk revenu boo xamante ni soo demee ba am yenn âge yi dootoo am yenn possibilité pour am xaalis loolu di la génneel xaalis booy mën a dundee mhm. ak booy mën a fajoo dangay ngay jaaxle mhm. léegi ci à côté du marché ngay nekk booy bu liggéey ba ngoon man ko waaye fis tey amul lu ma yóbbu kër ga de xam nga mhm. sa yaram daw nga yëkkati benn 2000 kii yëkkati benn 3000 xam nga kii gaal gi teer nga yëkkat benn jën jox ko xam nga loolu dafa dafa triste quoi. dama mm-hmm. loolu ñaanuma yàlla jaar si. Mm-hmm. parce que am naa benn frère boo xam te ne dañ daf may tooñ euh, maa ngi koy nuyuwaale Moussa Ngom daf may tooñ à chaque fois naa ma état reconnaître wu ma xaw ma nii xaw ma am na mu koy waxee quoi. ni ne yaa ah, voilà moom tey yii nii foog mu jéem a góorgóorlu si boppam parce que état reconnaître ko. Mm-hmm. su demee ba retraité genre affaire demee yooyu la may tooñee man ko waaw loolu moom dëgg la moom parce que ëllëg da koy sóor parce ndaw day jeex. parce que ñun ñu yàgg nañ si jën bi man depuis bu ma amee dix ans ba nii maa ngi si. su ko kon ndaw su ko nekk nag loolu loo xam ne bu luy continuer mhm. te tey dara gënul metti nga dem ba am yenn âge yi mënuloo sa bopp dara fekk te ko état reconnaître xam nga mënoo too am yenn salaire boo demee ba retraité mën nañ lay fay genre affaire demee noonu. Mhm. mais tey jii nii nii booru géej dafa am ay problème yu bëri bëri yu fi nekk. su mhm. comprendre nga ci wàllu mag yi fa doon liggéeyee dem ba seen doole jeex mënul ci seen bopp dara genre affaire ñun xale yi. tiit nañ trop su suñu bopp ñun tamit. Mhm. te bu ñu sañoon impôt boobu noonu ñuy wax ñu xool nan lañ koy mën a booloo di ko génnee tege ko à côté ngir ëllëg si biir mu jëriñu dara. cotiser mais est-ce que yéen a ngi def ay démarches pour justement mun a dugg si si cadre boobu. ba nga xamante ne lu parce que parce que parfois di gis benn génération. lu daal mag ñi daf leen di yee pour ñoom ñu mun a organiser wu ba mu mun leen bañ a daal ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi est-ce que yéen a jéem a regroupé wu parce que comme ni ma ko waxee tout à l'heure rek euh, du nekk juste volonté politique il faut que population bi aussi am volonté dem vers euh, li nga xamante ne mooy formalisation ndax yéen a ngi jéem a organiser wu pour dem ci loolu. non loolu man je vois que ñu ngi ci yoon parce que man euh, presque mun naa ne nguuru Abdou Diouf fi la ma fekk. Mhm. nguuru Abdoulaye Wade fi la ma fekk nguuru Macky Sall fekk mais nguur gi bees gi nii ni mu jëlee impôt. Mhm. def ko ci nopp nit ñi. Mhm. franchement parler gi jaar yëpp. coow impo moom nekk na coow loo xamante ni ni ma koy déggee nii mosuma ko déggee ci <laughs> ci bu ma juddoo impôt boo yeewoo ma def actualité bi ba loolu tax na ñu képp xamuloon li impôt di jar yi sax actuellement yaa ngi ah. jéem a intéressé wu di xool impôt mooy la mais ni ma déggee impo lu am importance la ci jeunesse bi lu am importance la ci population bi parce que nekk na loo xamante ni man de li ma gis ni carrément ni moom lañ koy waxtaanee. Mhm. su fekkee loolu la moom man moom su ma sañoon ñëpp di mhm. nii bu fekkoon am na lu ñuy jéem a xoolee nan la ñu mën a organiser di fay impôt ñu koy def loolu dinañu intéressé trop. Mhm. parce que man de xawma kan mais man impôt yóbbu na sama fi pour l'instant. <laughs> nit yi dañuy dañuy tiit mais lan mooy avantage yu ñëpp àndandoo di fay impôt muy euh, élargissement de li ñu tuddee assiette fiscale lan mooy lan mooy lan mooy avantage bi. waaw ah, bëri na bëri na bëri na waaye dafay. daal xelu sama sama mbokk bi rek Sadi. Mhm. Ah, booy wax léegi impôt yu bëri nañu ko waaye. c'est-à-dire buñ ne impôt yi mairie dañ naan waa l'impôt yi ñëw loolu la ñuy eh, dafa nekk image bu nga xamante ne ah, ma je pense que euh, communication bi ñu ci war def mooy euh, dalal xelu nit yi si lan mooy impôt fan lay dugg dire que ñëwul rek parce que tout le temps quand on dit impôt directement sa xel day dem ci redressement fiscal ñëw nañ jël xaalis si moom def nañ ko lii wala dañuy jël suñu xaalis bi te duñ ñu ko joxaat yaakaar naa ni si communication bi il faut ñu gën a wane léegi nit ñi lan mooy impôt ñu dala si seen xel boole ko si seen dund comme yenn dëkk yi nga xamante ne da ngay gis que bu jotee ñëppay daw dem defi déclaration d'impôt <laughs> waaw li wax rek impôt moom euh, jarta ragal mhm. euh, sama collègue bi fi jaar démb di Abdoulaye ñu ngi koy fàttali ni nag peut am na un lien particulier bu ñu am ak parce que bon mhm. dañu nekk état boo xam ne dañu dañu kii dañu coloniser woon et que donc impôt nekkoon na loo xamante ne si ci méthode de recouvrement yu mel noonu euh, bàyyi na fi ay stigmate. tubaab bi la xalaat exactement donc y' a un peu euh, cet aspect euh, sociologique là qui est lié waaye tey yii nii lu bëri changé na. Mhm. et damay wax ni rek impôt tey jii nii askan wi la fi la fi la fi la nekkal. et mhm. lépp loo xamante ne si ñu ngi koy def rek. ngir dundinu askan wi gën a ñoŋ la. Mhm. bu ni ñaax impôt euh, nit ñi ni nañ fay impôt li ñu bëgg rek mooy état bi lépp loo xamante ne si ñu ngi ko warloog ñoom mu gën koo defee anam bi gën a baaxe mhm. lu jëm ci wàllu dund gu yomb gi ñu ngi koy wax léegi. lu jëm ci wàllu faju lu jëm ci wàllu tali yu baax. Mhm. lu jëm ci wàllu njàng. lu jëm ci lépp loo xamante ni si nii nit ki état rek la ci mën a yaakaar. mu fajal ko ko lépp dina gën a ñoŋ su fekkee ni rek nit ñëpp ànd nañ ni impôt moom ñun ñuy def nii. suñu bopp lañ koy defal pour jàppale état la li nga xam te ni warloo na ko ñun mu gën ñu ko mën a defal ci anam ñu gënee la mhm. te tey jii nii impôt tamit ubbeeku na ubbeeku boo xamante ne sii nii tey sax ki nga xamante ne si nii moom am na loo xam ne lënt na xelam mu bëgg koo xam mu na dem ci service impôt domaine bi gën a jege parce que tey jii nii ak euh, ci programme bi ñu nekk di déroulé nii on est en train de revoir un peu service d'accueil de nos de nos services <laughs> waaw nit yi dinañ ñëwee jékki-jékki ñëw ne salaamaaleykum <laughs> man la diw dama créer lii dama ñëwoon seet si leen pour xool naka laay nekkee en règle est-ce que nit yi duñ leen wooy bu ñuy dox naan waa waa impôts yi est-ce que dinañ ñëw vers vous pour ñëw vers l'information. waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñëw waaye ñi gën a tijjeeku ñun tamit mooy ni ma la waxee léegi. Mhm. am nañu ay plateformes mhm. yoo xamante ne si nii ñu ngi koy mettre en place pour que mhm. service d'accueil bi aussi gën a ñoŋ. contribuable bu ñëwee xelam mën a dal euh, ñu mën koo orienter. donc tey jii ni képp koo xamante ni si nii soxla nga wàll soxla nga xam lu jëm si obligation fiscale wala yu mel noonu. Mm-hmm. amul dara loo xamante ni si war nga koo mën a ragal pour dem impôt demee toog ñu xelal la wax la fa nga war a jaar ak euh, lépp li nga xamante ni si war nga koo def ba ba nga nekk en règle. alors élargissement d'assiette fiscale yaakaar naa ne depuis sànq moom ngay waxtaanee euh, pour li nga xamante ne moo jëm ci wàllum wàññi impôt bés bu ñu bëggee mu wàññeeku il faut ñëpp fay ñëpp fay mooy ñu jël assiette fiscale bi élargir ko ba mu tas dugg ci domaine yëpp képp koo xamante ne yaa ngi gagné plus de 630 000 euh, par euh, an. Euh, nga dem am am am taxawaayu dem déclarer ji ko pour mun a fay li nga xamante ne moom mooy sa participation ci impôt bi ci la ñëpp mën a gisee ci seen bopp. oui euh, loolu la mais yaakaar naa loolu aussi dafa laaj euh, un plan d'action yaakaar naa certainement gouvernement bi am na ko. état am na ko. Mm-hmm. voilà un plan d'action vraiment pour l'élargissement de l'assiette fiscale. am naa gouvernement am na ko. je ne connais pas bien le contenu mais je sais que normalement war nañu renforcer les moyens Euh, donc euh, de l'inspection euh, au niveau du ministère des finances ñëpp ñoo xam ne dañoo liggéey ci impôt ci fiscalité en termes de moyens mooy donc moyens nag ñoom ñoo ko fam soit en nombre soit sur le matériel wala ainsi de suite un benn bi c'est l'inspection du travail aussi l'administration am nañ ci solo parce que lépp loo xam ne wàllu liggéey la ministère du travail ci seen responsabilité la nekk administration du travail inspection du travail ñoom te am nañu un rôle important par rapport à l'identification parce que ñoom dañuy def ay sorties dañuy dem sur le terrain dañuy dem parfois dañuy euh, rencontre dem si ay entreprises dem ay sociétés parfois dañuy gis ay sociétés yoo xam ne peut-être pas en règle donc sur le plan donc euh, donc euh, en matière euh, de kii en matière de donc de cotisation soit IPRES wala que caisse de sécurité sociale mais certainement ñu mel noonu également certainement ils sont même pas par rapport aux yaakaar naa aussi dañoo war a mën a donc une politique plus cohérente entre euh, donc euh, le ministère du travail e le ministère euh, donc des finance mmh. euh, vraiment pour la formalisation. Mmh. pour ñëpp mën a fay impôt parce que am na ñoo xam ne fii. xam nga il y a ce qu'on il y a formel informel parce que il paraît que du ma dugg si kii yooyu mais il y a un formel il y a un formel informel. c'est-à-dire. il y a formel informel donc boo xoolee nii structure bi ni mu kiiwee nii. tout donc donc tout est formel mais si ni muy doxalee yëpp tout est informel. ah ok genre moom lépp lay formaliser. voilà waaw mais voilà donc tout ça waaw leen yëpp si tout tout est informel. d'accord voilà il paraît que loolu loolu tamit am na fi. Mm. mais loolu tamit administration du travail ak waa ministère des finances ñooñu également ñoom ñoo leen war a débusquer. Mm. parce que y a des gens qui il faut les débusquer donc am loolu pour ñun am na beneen bi mooy bi ma doon Euh, c'était moins un problème d'exonération c'est vrai que l'exonération c'est pas correct mais par rapport à des facilités am na ay entreprises yoo xam ne donc c'est des entreprises étrangères mm. bu leen indi fii implanté leen dans la zone économique spéciale am na am na quand donc des préférences bi leen di defal y de des facilités leen defal en termes de paiement d'impôt même su nous exonération mais y a des facilités ça quand même vraiment ñun am nañu information boobu mm. voilà donc euh, même loolu dina am mais aussi dafa am li mu dafa am euh, donc dafa am contrepartie contrepartie bi également que ñoom dañuy recruter dañuy créer emploi mhm. dañuy créer emploi donc c'est pour créer de la richesse dans notre pays mhm. mais emploi bi ñoo créer c'est doit être un emploi décent mhm. mais dañoo constater de plus en plus ñiy liggéey foofu dans la zone économique spéciale du ma tudd nit parce que si télé la ñu ne mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises yoo xam ne ils violent les droits des travailleurs respecter seen droits fondamentaux yi nga xam ne. des entreprises étrangères. voilà qui ne respectent pas les droits des travailleurs sénégalais. Mm donc en matière de droit d' association pour mën a bokk si ay syndicat ak droit de négociation collective mais également par rapport même également donc à des contrats à durée euh, déterminée ou indéterminée. Mm -hmm. donc loolu tamit yaakaar naa euh, inspection du travail ñoom ñoo ngi siy def seen liggéey. Mm-hmm. Euh, inspection des finances également accorder et facilités donc à des entreprises étrangères sur le plan fiscal mais en contrepartie que les droits des travailleurs ne les respectent voilà. d'accord euh, am na si lu ma bëgg a ñëw bu mu doon wax mooy exonération d'impôt ñan ñoo siy profité à part ñi nga xam ne à part ñi nga xamante ne euh, gagné wuñu plus de six cent trente mille par mois yan entreprise ndax souvent da ngay dem euh, dans le cadre de l'événementiel wala autre ngay liggéey benn entreprise étranger wala benn ambassade ñu ne la ñun on est exonéré d'impôt ñan ñoo siy bénéficier wu réellement. waaw exonération yi moom euh, bu ci nekk waaye si li ma bëggoon rebondir rek mooy exonération yi. Mhm. on a l'impression que on qu'on les accorde qu'aux entreprises étrangères. oui alors que li mu waxee léegi impôt. lépp loo xamante ne sii ni moom wàllu service public day nekk loo xamante ne si nii euh, c' pas individualisé wala du nekk loo xamante ne si quelque chose de personnalisé waaye nag suñu dëkk yi dañoo nekk dëkk yoo xam dañoo soxla investissement direct étranger donc ce qui fait que la perception peut peut peut peut peut tendre vers à ce que ñu jàpp ni ñoom rek la ñuy exonéré waaye exonération état du jug rek def waxee léegi rek am rek la am pour mën a doxal. lu muy donc l' état n'accorde pas d' exonération à li ñuy interroger peut du nekk exonération yi waaye l' impact dañoo war a toog saytu ndax lan ca doon wut gis nañ ko ci am dee parce que exonération yi ñett am soit état danaan damay exonérer pour des raisons techniques maanaam lii kat bu ma ko exonéré mën na indi ay jafe-jafe ci secteur bi damay exonérer dans un but économique parce que bëgg naa am ay investissement bëgg naa promouvoir samay zone économique spéciale entreprise implantée wu fa mën a employer ay jeunes mën a aussi. Euh, créer de la richesse créer de la de la de la de la richesse. wala boobu ma exonéré pour un but doon social te exonération yi sax bu ñu xoolee mu ëpp ci exonération yi parce que tey jii nii lépp lu jëm loo xam ne day nekk ay produits de première nécessité wala mu nekk la tranche sociale sur la consommation d'eau wala d'électricité mu jëm ci wàllu frais médicaux yi ak mu jëm ci wàllu gaz butane. mu jëm ci wàllu produit yu bëri yoo xamante ni si nii c'est des produits de consommation courante ak yoo xamante ni si nii day jëm ci wàllu dund état bi danaan kat lii kat bu ma ko taxee war naa mën a diis askan wi donc baal ma teggi mm-hmm. donc exonération yi ñett yooyu noonu ñoo am léegi nag su fekkee ni man activité bi may def nekk na ci secteur yooyu noonu wala man opération yi nga xamante ne si maa ngi koy réaliser nekk na ci secteur yooyu noonu rek war naa mën a am ci exonération yooyu noonu. Hmm. mais moom lu nga waxee tamit par rapport aux investissements directs étrangers il y a certains projets de l' état yoo xamante ne si nii état pour mu mën ko tëral ci anam yi mu yu mu yu mu yu mu na baaxee ak tamit attirer les investisseurs aussi mën na def des exonérations day yombalal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw. exactement ok donc c' est à but économique parce que bu investissement amul tam création de richesse mënul am. emploi tamit mënul mënul am waaye exonération jagleeluñ ko rek entreprise étrangère yi mën mën mën mën mën na sax concerne une entreprise une entreprise locale mhm. waaye en 2012 aussi on a procédé à ce qu'on appelle euh, le droit commun incitatif réforme boo xamante ni ça nous avait permis de rationaliser beaucoup d'exonérations dañu éparpillé woon et que aussi bu njëkk exonération yi ministère bi daan joxe ministère ñu ni nag kat léegi ministère des finances ma ki nga wàll woowu noonu moom moo koy say waaye liggéey bi tamit du yam foofu na parce que ba tey boo xoolee dans les documents de politique économique toujours c'est une question qui revient par rapport à la rationalisation des dépenses fiscales maanaam war nañ toog saytu ñu mesure bi kat dañ koo édicté woon pour début économique est-ce que lañ ca doon séentu am nañ ci lu toll lu ko jar su fekkee am nañ ko ñu wóyal ko su fekkee loo xamante ni sii ni tamit lu ñu war a xoolal dañu xoolaat donc foofu la nekk waaye dafa nekk loo xamante ni si ni lu am solo la ci wàllum suñu màggum économie ak suñu wàllu ñoŋal Euh, fu ñu ko defee rek am na lu koy justifier waaw soit c'est raison économique. soit c'est raison sociale soit c'est raison technique. waaye exonération moom bu mu ci doon rek am na fu mu sukkandiku. parce que état bi amul intérêt xëy rek di di di di di exonéré exonéré noonu moom tamit. d'autant plus que suñu ay revenu fa lay jógee. d'autant am na benn évaluation bu ngeen mooy que boobu ngeen euh, réforme boobu ngeen defoon xaw ma en 2013 la wala 2012 2013. améliorer la situation des ménages yaakaar mooy kii réforme boobu amoon wàññi euh, kii bi euh, kii bi euh, mooy bi ñuy kii bi mooy wàññi kii bi l'impôt sur les pensions mhm. de retraite mhm. également ak kii bi ngeen wàññi aussi les tranches là jëlee ko dix indi ko six mhm. est-ce ak leen également yaakaar naa boo ah. boo aussi da ngeen war a évaluer ngeen seet aujourd'hui quel est l'impact parce que xam nga il y a cela dix ans ou onze ans bientôt loolu def nañ ko Maintenant, aujourd'hui, quel est l'impact Parce qu'aujourd'hui, on continue à, nous, en tout cas, travailler, nous continuons à demander la baisse encore de l'impôt. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché réalité? Donc, le problème, mhm. c'est par rapport à la politique fiscale, ou bien, euh, c'est quoi C'est le coût de la vie, ou bien, en il y a un problème quand même. Parce que euh, on ne peut pas initier une politique, pour soutenir les maîtres, euh, pour, pour améliorer la situation des ménages, une politique fiscale, et que deux ans après on se rend compte donc. Euh, le de la vie est beaucoup plus élevé dund bi dafa gën a metti donc nit ñaa ngi laaj également pour ñu yokk ay salaire nit ñaa ngi yokk laaj également pour ñu wàññi impôt donc il faut ñu évaluer c'est réellement lan mooy problème bi yaakaar naa loolu tamit suñu demande la. ma yóbbu doole la si. <laughs> Ah. est-ce que baisse d'impôt ça peut une réalité. ak suñu fonctionnement ñun Sénégal. Hmm. comment on fonctionne vis-à-vis de de fiscalité. Mm-hmm. est-ce que actuellement mun nañu xalaat que dinañ dem ba impôt wàññeeku. waaw bala maa si loolu rek damay dalal xelu sama collègue bi monsieur Diallo ndax boo xoolee système fiscal moom tout le temps day nekk en perpétuelle mutation tey jii boo xoolee at bu jot loi de finance bu ñëw pot bi danañ ko laalaat ci ay articles xool li nga xamante ni si ni kat ay ajustement yu ñu war a def la ak yu ak yu demee noonu. bu ñu doon bu ñu tollee ab diir tamit parce que Sénégal on a eu trois à quatre réformes majeures yoo xamante ne si def nañ ko boobaak boobaak euh, léegi waaye entre ces séquences là at mu jot loi de finance bu ñuy dinañ xool nanaka la ñuy distribuer waatee euh, ressources yi ak yëpp yoo xamante ne si war nañ ko xoolaat. Mhm. surtout boo xoolee dernièrement avec tout ce qui concerne les produits nga xamante ne si la consommation état yi bëgg na ko décourager ak yu mel noonu yëpp. Mhm. dugg ci loolu waaye mën na nekk une réalité waaye tamit dafa am ay principe yoo xamante ni si nii moom moo tënk moom moo tënk état nekk ay principe bu finance publique parce que état dañ naan ko lépp loo xamante ni si kat da nga naan da koy wàññi wala boog da koy dindi boo boo jëlee mesure boobu te war nga mën a xool fenn foo xamante ni si da nga fa sukkandiku pour la nga perte nga mën ko dab. pétrole bi. waaw <laughs> pétrole bi mën na nekk loo xamante ni si mën na mën na mën na mën na mën na gën a ñëw état bi ci ot ci ci ci côté boobu noonu surtout que bu ñu renégocier waatee contrat wu pétrole beeg pêche beeg zircon beeg xool beeg yooyu yëpp ñu xoolaat ko war nañ mun a wàññi suñu impôts yi nag. waaw ah, secteur oh. foofu xaalis bi du nag. <laughs> waaw secteur boobu mënu ma ci xuus du sori. voilà li ma <laughs> mais ñun ñoo joxe idée boobu rek jox ko euh, suñu président yi bàyyi leen noonu waaw parce que on a des ressources naturelles que souvent euh, ba ci phosphate bi exploitation bi mooy poser problème. Dans la dernière fois qu'on a vu bi pourcentage bi ci Sénégal am 12 pour cent je sais pas en euh, ñi ngi compter si ñoom pour euh, euh, renégociation contrat yooyu bu ko defee bu xaalis boobu di dugg impôt yi di wàcc. waaw ah, bala boo yegg sax ci loolu mooy li ma doon wax léegi rek nii lépp loo xamante ni si nii dañ koy abandonné. Mhm. wala boog dañ koy wàññi war nañ mën a xool fu ñu ko daboo. Mhm. day duggaat rek ci li ñu doon waxtaanee sànq ba léegi. Mhm. donc état bi mu mën a xool te yi ni mooy des niches de xamante ni si nii kat état bi war na mën a dem wutee fa xaalis yéen a ngi gis communiqué bi ñu def sur la TVA numérique tey jii nii les prestations de services numériques mhm. seront taxables au Sénégal à partir de ce mhm. premier juillet mhm. incha allah donc loolu noonu dina nekk un pas décisif dans la recherche de nouvelles niches de recherche bu ñuy nekkee tamit di xuus dans l'établissement de l'assiette aussi dinañ jéem a engranger le plus de contribuables possible donc hmm. nag bu ñu demee nag ba nga xamante ne si ne état mën na am fenn fa mën na fa sukkandiku pour am ay recettes dina mën a may tamit peut-être salariés yi wala boog ñenn ñu nekk ci yenn secteur d'activité aussi mu wàññi leen seen i impôt ba nga ñoo xamante ne aussi dina mën a gën a oyof si ñoom. donc hmm. bu ñu demee ba yegg si loolu réalité baisse d'impôt boobu noonu loolu mën na nekk. alors émission bi euh, léegi mu jeex mais bëgguma nga jóge fii te waxoo ma lan mooy quitus fiscal ndax souvent <laughs> da ngay gis ay marché yi nga xamante ne nit ci dañ lay ne pour participer ci marché bi wala pour ñu fay la il faut nga am quitus fiscal lan mooy quitus fiscal. waaw quitus mooy kayit gi nga xamante ni si su nekkee da nga am un marché booy soumissionné wala boog yenn saa yi boo demee ba service du trésor yi war laa fay mooy document bi ñu lay bi ñu lay laaj c'est un document qui permet. maanaam day euh, day permettre ñu mën a xam ndax nit ki nekk na à jour dans ses obligations fiscales waaye nag yaa ngi nuance en fait parce que na yoo xamante bi ni ah cutis lu ma impôt dara waaye foofu li may leer mooy cutis bi day ni yow daal weer yi nga waroon ñëw déclarer yëpp ñëw nga déclarer at yi nga waroon ñëw déclarer tamit déclarer nga yaa ngi à jour ci say obligations waaye ça ne dit que ni nag li nga déclarer yëpp méngoo na jaar na yoon waaye daal yaa ngi ñëw saay su waxtu ba jotee def say déclaration na nga ko na ko war a def mhm. donc loolu noonu moom mooy quitus fiscal mooy quitte avec l'administration fiscale waaw mi yoreelu ma état dara <laughs> koy fay du dëgg mooy précision bi ma def ça pas dit waaye daal moo daal wax naa ko ni waxtu yi ma war a ñëw waaw déclaré waroon naa ñëw weer weer déclaré ak imposition ñëw naa déclaré naa mhm. ko ba ma waree ñëw déclaré yes ñëw naa déclaré naa ko waaye tamit état bu ñëwee ëllëg ndaaj la bul ni amoon naa quitus ndax quitus bi respect de l'obligation rek moom lay certifié waaye certifié wu na la nga def ca déclaration yi moom jaar na yoon am na ok donc il faut ngay déclarer respecter li ci biir di fay mi ngi noonu nañ ko dugal suñu bopp du doon lu yomb mais parce que en dehors de euh, li nga xamante ne moom la ñuy euh, dagg muy impôt sur le revenu nga xam ne bala moo egsi lañ koy teex dugalee na le ah ñun pour ñu dem def suñu ay déclaration jéem a dëppoo ak yoon jéem a dëppoo ak euh, fiscalité dafay nekk loo xamante ne daal bëgguñu ko daal comme euh, docteur Demba wax na ko image colon bi la ñu am colon bi nga xamante ne dafa ñëw fekk si la euh, si sa dëkk fekk si la si sa ay terre et pourtant chaque jour dañuy yónni nit yi ne leen dem leen jëli impôt ci baykat yi dem leen jëli impôt ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk Sénégal donc dafa am benn réticence bi nga xam ne je pense que daf ñu topp ba léegi see nekk ci dëkk bi il faut ñu xool nag beneen fonctionnement bi nga xamante ne dañu koy am ndax euh, quoi qu'on puisse dire euh, en attendant euh, suñu yeneen ressources yi mën ñu jariñ clairement impôt si la ñuy sukkandiku pour tabax école prof yi nga xamante ne maître yi di jàngal seen doom yi salaire yi foofu lay jógee bu ma juumlee ci domaine public bi salaire yu bëri ci biir impôt lay joge euh, donc bu ñu bëggee euh, tabax tey ay tali euh, si impôt bi lay jógee faut pas s'étonner que aujourd'hui bu ñu bëggee tabax autoroute on est obligé d'aller à l'étranger wala benn entreprise étrangère ñëw mun a def fi investissement c'est parce que ñun suñu impôt fi mu war a egg eggu fa donc dañuy nekk gouvernement bu nga xamante ne dañuy soxla tout le temps xaalis ba tax na dañuy dinañ lebi dinañ am ay financement dinañ am yu ne mais bu ñu bëggee gérer suñu dëkk suñu bopp impôt moom il faut ñu respecte ko di ko fay en temps et un heure on va essayer de faire tout ça ensemble ndax volonté politique kese doyul il faut une volonté euh, personnelle monsieur Diallo xam naa si loolu laa lay bàyyee nga te joxe sa message ak li nga xamante ne moom ngay xaar surtout euh, par rapport ak impôt ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey yi. voilà donc euh, yaakaar naa en plus du quitus fiscal bi nga xam ne wax ngeen ko pour entreprise yi société yi di mën a bénéficier wu si marché yi am na benn quitus boo xam waa IPRES. accueil sécurité sociale ñoom ñoo koy joxe parce que pour nga accéder également au marché également donc euh, de l'État il faut aussi nga à jour avec euh, la caisse sécurité sociale avec l'IPRES pour wane effectivement yow li ngay prélever ci salaire yi liggéeykat yi yaa ngi koy reverser IPRES ak caisse sécurité sociale loolu tamit amal na solo aussi liggéeykat yi donc euh, ça important maintenant par rapport ak impôt bi ñun daal nous sommes pour l'impôt on l'impôt juste. Mm-hmm. waaw un impôt équitable impôt boo xam ne ñii ko war a fay yëpp dañ koy fay impôt boo xam ne également dañ koy wàññi aussi dafay nekk soutenable boo xam ne également donc euh, euh, dinañ koy fay euh, mais également duñu duñu lor mhm. yaakaar naa tamit donc dafa am solo boo xam ne aussi impo boobu ñuy fay aussi mu am une transparence mhm. parce que aussi dañoo nekk si àdd si si monde bu bees boo xam ne lépp loo xam ne avec gouvernance transparence aussi dafa war a am impôt bi ñuy fay aussi nañ xam également fu mu jëm fu ñu koy dugal mu nekk njëriñu askan bi parce que loolu tamit mooy gën a motiver ñi doon fay impôt di fay impôt. ñii daawul fay impôt di fay impôt. ñu gis ci seen bopp ñu gis seen bopp. exactement yaakaar naa loolu tamit vraiment. waaw parce que tamit boo naan damay jël xaalis bi koy ñoo koy ñoo ngi koy caaxaane koy maye fële préambule bi que donc en fait. suñu mhm. impôt yaakaar naa loolu tamit dafa am solo donc une transparence aussi dans donc euh, si li ñuy fi ñuy dugal xaalis euh, xaalis bi daal. daal loolu tamit amoon nañu solo donc euh, appel boobu la ñuy lancé travailleurs également vraiment képp koo xam ne aussi liggéey kat nga mhm. di nga xam ne également euh, fay impôt daf la war te am nga si njëriñ te na nga formalisé wu suñu camarade euh, ñoom Saar yaakaar naa après nañ jokkoo ak ñoom incha allah fexe également ñu dugg si formalisation mhm. non seulement di mën a ñi mën a fay impôt si ñoom parce que comme j'ai am nañu am nañu mën a fay am nañu xam ne mënuñu fay mhm. ñu mën a fay impôt si ñoom di fay impôt mais en plus di fay impôt bi vraiment ñu fexe aussi ba ñoom ñu mën a am protection sociale. Mm-hmm. parce que ñun yaakaar naa loolu moo gën a euh, mm-hmm. euh, ñu mën a am couverture au niveau de la sécurité sociale euh, seen retraite également ñu mën ko jël en charge. également ñu mën a am mm-hmm. mm-hmm. merci beaucoup euh, monsieur Diallo kontaanoon nañ ci euh, recevoir la fii ci plateau bi pour rappel monsieur Souleymane Diallo moom moo nekk secrétaire général adjoint de la euh, CNTS du syndicat national des travailleurs du Sénégal. confédération nationale confédération nationale. Ah, des travailleurs du Sénégal merci beaucoup pour rectification bi nekk aussi ancien secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal président d'honneur du CELS aussi en tout cas merci beaucoup ci leeral yi nga indil yaakaar naa ni travail yi tey euh, ni nga leen taxawalee dina leen neex ndaxte kuy liggéey bëgg nga si gis sa bopp bëgg nga si dund convenablement avec la toute la dignité qu'il faut euh, Sadi Sadi yow nag moom xam naa du la bàyyi nga dem te waxoo ci marché bi nga xamante ne ñu ngi koy tabax depuis deux ans financement bi duggoon na xaw ma nag fan la mujjee ndax euh, financé nañ ko ci marché bi wala jaarale nañ ko rukk comme niñ koy defee d'habitude mais en tout cas pour marché bi mun a pare yéen ngeen mun a liggéey convenablement et puis sax jéem a xool nu ngeen di def pour formaliser wu ci kaw ñu teg ku ci nekk place am ni la fii kat Sadé ko moom moo fi liggéeyee ni ne yaawam a nii lii lay fay wala fayul euh, taxi wala munta fay Euh, état bi mun ko jàppale ci kaw ay investissement ci kaw bu bëggee def euh, prêt bancaire pour jéem a évoluer commerce am bi muy def. waaw effectivement mooy comme li nga wax ni rek suñu premier objectif mooy marché bi nga xamante ne moom mooy marché bu bees bi nga xamante ni moom la maire yi bu bees bi créé woon indi projet bi wan ñu ko marché boobu noonu àgg. parce que ku ne xam na ni Dakar fii bu nawet bi jotee ñi euh, nga xamante ni mooy eaux usées yi ak saleté yeeg yëpp dañuy booloo. ñëw ci benn côté muy côté canal 4 boobu te ñun noonu foofu la ñu féete te nekk na lieu boo xamante ne nii lépp lu Dakar versé si ndox rek ci géej gi lay ñëw foofu noonu. Mhm. à Soumbédioune kon loolu ñun arrangé wuñu fi nekk nii ñu nekk fa jusqu'à présent bu ñu sañoon suba suba suba suba ñu dem ci marché bu bees bi nga xamante ne nii en ah, finition la nekk parce que marché bi presque pare na ba pare. ay mhm. affaire réglage yu ndaw moo ci des. Mhm. bu bu ñu jógee ci loolu tamit li ñuy gën a amal importance mooy. comme li monsieur Diallo wax léegi léegi c' très important pour mag yi nekk foofu parce que fa am ay mag yoo xamante ni bientôt ils vont ils en retraite donc dans ce cas retraite boo xamante ni bis bu ñu fa àggee ñaan nañu ay aide wala comme si que ni ñuy état di reconnaître ku nekk ci état bi di liggéey ni ngay amee retraite ay pension wala genre affaire demee noonu ñu créer ko ñun suñu biir wala état jàppale ñu nan lañ koy créer pour suñu mm. mag yi tamit bu ñu demee ba àgg ci méthode boobu noonu dootuñu am benn possibilité euh, impossibilité pour dund quoi. Mhm. parce que dem nit ki moom tant yaa ngi dund nekk si àdduna bi deewoo ko tu as besoin. comme nga bëggee nag. voilà waaw dund. bu baax boo gisee ba am. añ reer ndékki boo gisee ba am sax pour nga am ci xale yi rafet yi problème la. waaye bàyyi xale yi <laughs> yàlla buñ demee ba. non buñ demee ba am yenn âge yi. nañ toog ak jabar yi commencé noonu rek nag buñ buñ indi benn problème. waaw commencé naqari direct. te ñun tamit ñoom ñi ñu nekk si wàllu géej gi tamit di développé parce que fii képp xew sën suba teel fii mhm. képp kuy Sénégal ceebu jën ngay dundee dëgg la boo lekkul ceebu jën di nga nekk yaasa di nga lekk domoda bu leet wala te lépp gi la maa nga laal ci fruit mhm. kon ñun tamit dañuy jouer un très grand rôle dans ce ñun ñoo nekk si wàllu géej ba tax na bëggoon naa état reconnaître di préparer suñu retraite mhm. parce loolu day tax xale yi nga xamante ni tamit ñu ngi ci ëllëg si biir ñu am courage nekk si mais dem ba am yenn âge retraité si jën xam nga réalisé woo ci dara amuloo benn revenu xam nga tu finiras mal loolu ça nous fait très mal actuellement nii. Mhm. su loolu daal dañuy ñaan yàlla xam nga affaire yi développé wu ku si nekk yëg sa bopp daal. en tout cas merci beaucoup Sadim mu ñëw représenté waa marché Soumbédioune j' espère que le message est passé et que euh, lépp li nga xamante ne yéen a ngi koy xaar ci marché bi buñ jugee ci émission bi dinañ ko mun a matale ba ku nekk gis ci sa bopp et puis nit ñi formalisé wu euh, monsieur Lo nag lu ma bëggoon nga ñëwaat rek mooy formalisation intérêt bi lan moo tax mu war a nekk une réalité et que nit ñi mun a fay impôt assiette fiscale bi euh, gën a yaatu ba baisse d' impôt mun a nekk une réalité en attendant ñuy mun a exploiter convenablement suñu ressource naturelle yi. Hmm. waaw jërëjëf Bijou euh, waxtaan am na solo donc formalisation bi daal li ma ci wax rek mooy que njëriñ daal bëri na et nit ñi bu ñu ragal bu ñuy jàpp ni rek bu ñu demee impôt lan doon am day nekk loo xamante ne si day yées ndax impôt tamit boo ñëwee mënoo itam dañuy xam ne mënoo soo fekkee tamit lii nga am dañ naan ah li nga am kat lii nga ci war a fay nii la tool donc ku nekk na sa doole tool rek noonu ngay fayee waaye nekkul loo xamante ne si day nekk. un impôt confiscatoire. Mhm. donc dañuy dalal seen xel wax leen ni leen bu nekk bu rombee wàllum impôt bëri na yeneen avantage yoo xamante ne si mën nga ci am. mën na tax sa activité boo bëggee financement. au niveau de certaines institutions mu yomb. dina mën a tax marché yi nga xamante ne si nii état bi. Mhm. daf koy tijj diñ ci mën a accéder. dina tax tamit entreprise yu mag yi nga xamante ne si nii ñoom seen offre euh, de service. Euh, wala boog seen seen seen seen seen demande de de biens et moo gën a yaatu tamit di nga mën a jokkalante ak ñoom liggéey ak ñoom sa activité aussi gën a gën a màgg. Mhm. administration fiscale tamit mi ngi leen di seen xel. mi ngi tey jii nii seen une administration qui s'est beaucoup modernisée te parewul mu ngi ci yoon wi ba léegi mi ngi xool lépp loo xamante ni si nii mooy gën a yombal nit ñi seen i formalité mu koy def mu ngi jéem a gën a jege askan wi en instituant une politique de proximité gën a euh, solil ay services am mi ngi jéem lépp li nga xamante ni si nii contribuable mën na toog këram mënoon toog entreprise am def ko mi ngi ci jéego yooyu noonu pour indi leen loolu mm-hmm. en tout cas lépp loo xamante ni satisfaction usager bi la ñu ngi ciy def te tamit formalisation bi itam li ma wax sànq rek ñëpp ñu ci ñëw rek Sénégal lañ ko defal seen bopp lañ ko defal mm-hmm. seen i doom lañ ko defal seen i génération yi di ñëw lañ ko defal ndax lépp loo xamante ni si ni réew mi soxla nañ ko rek en terme d' infrastructure en terme de bien-être mm-hmm. mi ngi aju ci impôt bu ko ñëpp di fay rek ñëpp daal dinañ gën a mën a nekk ci condition yoo xamante ni si nii yu baax la état bi tam lépp bu mu warloo ñun dina ko mën a gën a def ci li waree. Mm-hmm. en tout cas merci beaucoup euh, à monsieur. Euh, Omar Lo nekk contrôleur euh, des impôts à la direction des grandes entreprises ci leeral yi ñu fi indil yëpp li ñu bëgg a def rek mooy réconcilier sénégalais yi ak fay impôt ndax du lenn lu nga xamante ne leneen lu dul investir ci sa dëkk mun a jot ci marché état yi mun a euh, jot ci prêt yi nga xamante ñi ngi koy def mun a am li nga xamante ne moom mooy euh, retraite mun a am prise en charge médicale il y a tellement d'avantages ci euh, fay impôt et puis état mënul fonctionner te amul xaalis bu muy fonctionner ñun lay gérer ñun ñu koy gérer nag ñoo ko war a fay ñu ko mun a fayee si impôt yi donc nañu ko euh, saxoo ñun ñëpp def loo xamante ne impôt daal day bokk si ñun bokk suñu vie de tous les jours buñ ko ragal buñ ko ragal amul ragal duñu gaañ <laughs> ku ci nekk daal honnête avec euh, soi-même di def déclaration yi di wane li nga xamante ne moom nga gagné donte nag ñun transparence ci wàllum looy gagné ak bëgguñu ko de bokk ci suñu ay mœurs mais il faut ñu intégrer ko ci merci beaucoup euh, yéen ñi doon seetaan émission bi yëpp j'espère que am na loo leen ci jàngee par rapport à la fiscalité ndax dañ koy waxtaanee rek mais ñu bëri duñu comprendre lan mooy fiscalité looloo waral ñu andil leen thème bi tey euh, pour waxtaanee ko donc demain dinañ ko continuer toujours euh, li nga xamante ne moom mooy fiscalité mais demain fiscalité foncière si la kumba di ñëw suuf si appartement yi kër gi kër yi ak ban impôt la ñu war a fay ndax yooyu moom bokk na ci yi nga xamante ne bu munee nee rëcc tamit euh, du yomb merci beaucoup yéen ñi doon seetaan notamment Ama Binat merci beaucoup ci seetaan bi ngeen ma doon seetaan ça fait plaisir on a beaucoup de retours par rapport à l'émission que ce soit sur les réseaux sur nos téléphones et tout ñi ngi essayer di leen répondre mais du yomb pour ñu répondre yëpp mais en tout cas merci beaucoup ci ni ngeen ko jëlee adopté ko mu nekk seen émission Miroir du Sénégal ça fait plaisir à voir vous pouvez suivre l'émission si suñu ay réseaux sociaux YouTube bu TFM wala YouTube bu euh, SSP bu fekkente ne rëcc na leen de toute dinañ partager lien yi pour mun ngeen ngeen mun ko gis merci beaucoup ñi nga xamante ne tey ñoo ma sañseel Pam si femme pour la tenue Seydina Eva Pablay Diop euh, mu sëñ Sallou tey sama assistante Adja si dafa ñëw liggéey si merci beaucoup ma petite fille chérie moi je te fais un, un bisou <laughs> restez connectés am na yeneen programme yuy ñëw ci télévision Futur Média quant à nous mun ngeen ñu suivre ci réseau yi merci et à jeudi incha allah ci beneen émission dans la fiscalité